أمدي آه. لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملغا محمد صلوات الله في عبد علي في اسبي كل بكلا أدعو إلى إلسي أمد مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برا ناجيته جل أهواما وكرمني تكريم هاد وكل من لخن بريا رحمن عبل جميع الخلق رحمة من يغني عني سر من خرانه خرا ادعو مدى المستوان كل مفسدة من خلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن خود ارحم جميع الورى يا هاديا ردا يا مالك الملك يا من جل عن خود ارحم جميع الورى يا هاديا ردا موت ما خنا خلب من درر بجا افضل لمن لله قد لجا كل نيني دين ديفال اي تيراغا دين تيابلي باليم تي ام اي سوبي موم فريغالي كي خامو نو تول دو خامي ني دي طالب اك ني سوبي كون سونو دن بوخ دي تاي مومي ganam la te moo ko dalal kon nag ñu ngi koy ziar bu baax a xam naa sëriñ Alaaji Fàllu waaw waa kër sëriñ Abdou Rahman Lo ñoo egg si noonu sëriñ Maam Daam xam naa dinañu jox liste bi ñu mën leen présenté sëriñ Abdou Rahman ni mu toll ci Sëriñ Tuubaa xam nañ moo jàngal li ëpp ci doomi Sëriñ Tuubaa yi moom la Sëriñ Tuubaa féete woon féetale woon daaru alimul xabir muy kër goo xam ne dañ fa daan xam lu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 والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله طيبين طاهرين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فتبارك الله مبقي yi ba ñu santate yàlla moom buur bu tedd boobu nga xam ne moom rekk moo yeyoo kañ moom rekk moo yeyoo bokk bakk ci biir ak ci biti di ko sant ci xéewal yi nga xam ne du jóg di ko dotti ci jaamam yu matadi yii waaye yàlla ci mbaaxam ak matam kon ñu yëkkati ay kàddu yu nuyoo ak ziyaara di ko teg ci xalif général des Mourides ayyadahu llahu wa nasar ak njabootu maam Cheikh Ahmad Bamba yëpp di ci sëriñ Muntaxa yal na yàlla dollee guddal fanam ak ñi ci gannaawam yëpp ba ci man mii di wax sax maa ngi ca biir di nuyu bu baax ku ñu sopp lool ngir taxawaayam ngir xam-xam bari na miin na Tiwaawan Tiwaawan miin na ko muy sëriñ Xalil mii waaye laa xarwa way jur maamam ku nekk xam na dikkuk suñu way jur Cheikh Alhaji Abdou Aziz Dabakh ci nganam googu ngeen dégg léegi rekk bi may jóge moo tax hasard amul bi may ñëw jagsaaw laa yendu kaamil ba ko maamam joxoon ma nga fa fa lañ ko exposé bari na ñuy ñëw jagsaaw te duñ leen présenté kaamil boobu ndax la ca xewoon duñ ci agsi góor gi yàgg na ko nettali ca convocation ba ko tubaab yi convoqué woon ci ba mu ñëwee seet si góor gu baax googu nitu yàlla boobu cheikh mouhamadul moustapha mbàkke xaadimul moustapha fa tabarakallahu moom it mu am loo xam ne yàllaa ko ko jagleel ñu xam ci dara ci kilifa yi fi nekk ci kilifa yi nga xam ne ñoo wuy ji seen boroom yépp seede mujjug ñëwum Tiwaawan ci sëriñ Abdul Aziz Al Amin ci exposition buñ doon def tudde ko Cheikh seddi Hadji Malick moom mii moo doon bopp ba sëriñ bi yebal ñu mën ak sama kilifa sama sëriñ sëriñ Sidi Ahmed si fa tabarakallahu keroog ñëpp a la góor gi daan wax ko ku bégul bés bii tey dootoo bégati ba ilaa yow mi diine waaye suñ jotaay bii tamit bokk na ca jotaay yooyu ndax lii yépp mag ñee ko faggu damay wax ne la mag ña nekkoon bu dul dëgg ci yàlla dara dootul dëgg ci yàlla xanaa ju ñun xale yi li ñu nekk léegi quatre-vingt-quinze pour cent yi baax ci senegal yépp mag ñee ko fi def kon mag ñaa ngi noonu kon fa tabaarakallahu sëriñ bi ñu ngi yëkkati nuyoo bu tedd mu tukkee ci suñu làmmiñ jóge ca xadara sa maam ñëw dellusi si fii fekk fi sa maam kon lépp sa loxo lañ tey rawatina xalif général des Tidianes ak rakkam yépp sa xarit sa soppi Haj Malick si Maodo ma nga fa rek la ko góor gi waxoon ne ko wakun sahlan adiban layyinan day gudd ci lool rekk la ne xam nañ sa cofeel ak moom fa tabaarakallaahu eh, di nuyu bu baax ñiñ fi fekk ñëpp du ñu guddal nag maa ngi jéggalu eh, xam naa ne su ma yëkkatiwuloon kàddu dem du ñàkk sax ñu poñe sëriñ bi te nag sa kilifa nag doo bëgg kenn ku ko poñe ndax olof ñoo baaxoo noonu ñëw na fi ba dem de xagn nañ ko micro ba waye defe naa bu yëkëté kaddu mel na ni yobale na diina yépp te inna diina inda allahi al islaam damay mbokk yi léeg-léeg sëriñ bi mané bu ñu dajé ci jotaay yu mel ñu ne nañ jox tiijaan bi bu fa lay yéen ñu ne nañ ko jox 5 minutes mané ko ñu ñuy takalé de gaay duñ jóg duñu takalé te mag ñi doxewul won nonu bu kenn yëkëté kaddu rek na yobale ñépp géew waaye ñun tey dañuy gam-gamle Cheikh ba Abbas na ko bàyyi leen gam-gamle kii wax ne tuubaak ak Tiwaawan ñaari dawla lañu fii dawlatin te warul yow mi xam nanga nga ko wax na noppi mooy la gën seen dawlu jiitu na tey loo bañ-bañ du fi jóg waxal ba xottiku yaa malxoonu yaa xetaxol yow koo doon ak loo doon ba di wax soo bàyyiwul lii ngay wax yàllaay ki lay toroxal xasida bu gudd la fa tabaarakallahu kon mag ñaa ngi noonu yàlla yàlla fayal ñu leen di nuyu bu baax nag général suñu soppe la sëriñ bi yàgg na te wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula kóllëre googu matal na ko rafetal na ko ci diggante waxuma man waaye tiwaawan lu fa xew wala jagsaaw dana fa teew ànd ak njaboot gi yépp fa tabaarakallaahu ñu ngi la koy seedeel ndax soo amee njaboot mu lay wuutu ci yenn yi mënoo def lu dul ñaanal ko yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla ak ñi mu ko seqal ñépp bëgguñu tudd li waaye rek mbokk yi dañ doon féddali rek suñu kóllëre fii ñu ñëw nag duñu fi gan Touba bu ñu fi dogee wallahi dootuñ fi gan ndax miin nañ fi ndax suñu baay Cheikh Al Hadj Abbas ànd naak ñun bu dul benn du ñaar ba ci julli ga ba ci mi ñuy nettali dafa bokkoon ci bu ma ko jàngalan waxafam ba pare suñu paree daf ma naan am na lu sama baay sama soppe ba defoon ci man muy maam Cheikh Coro Mbàkke sa maam nee na dafa ñëw njaareem di dem Jolof ñëw ba ci station bi chauffeur bi jël essance boobu góor gi nekkagul xalifa li may nettali dundu Sëriñ Babacar Si mi ngi fi nee na fi muy jële essence rek moo tax mag ñi kenn du ñoom dégg ne maam Cheikh Coro Mbàkke mi ngi ci dëkk bi góor gi ne ah suñu yoon de dog na ndax su ma déggoon sëriñ Babacar wala Cheikh Mouhamadul Mansour danaa jàdd seet fu ñu ne dëkk sama loxo ñu ñaanal ma ma soog a dem comme dégg naa fi ma am Cheikh Coro nañ ma laajteel fu mu ne ma fekk ko fa nuyu ko ba pare sakku ñaan soog a dem. ñu laajte wax ko ko mu agsi nuyu góor gi ne ko Abdul Aziz mu ne ko inna farihna bil ityaani azizi lana abdal azizi fatal fityaani naan ko fiha zamanun shiplun yakunu bi iznillahi xaaliqina naan ko dirhaama ihraanihi fi sirri wal alani tawallal baaqiyi ka waalidihi bi jaahi asraari wal mikani mag ñaa ngi noonu gars yi nee na ma nee na ma si ñaan gi bokk na ci ñaan yi ma yàlla yëg ne yàlla nangul na ma ko ndax maam Cheikh Coro Mbàkke shaayir la woon ku yàlla mayoon la ci way bu lay séen rek mën na bind fa tabaarakallaahu kon tey loolu moo tax ñu ne nañ ñëw rek fedd naroon nañ dem bu yàgg ndax boo fi nekkee ñoo fi ne fa taba fu ñu nekk tamit fa ñu jëm tamit yow lañ fay wuutu rek ndax benn maam bi la te loolu la yàlla def ñu rafetal ko mag ñi rafetal ko ba jóge fi sëriñ Abdoul Aziz Al Amine ma wax ne dunduk suñu gor gu bax ga serigne Sidi Mbacke yal na yalla yok leeram neena ma semaine bu jot mu yónnee won dépense dundam yep nak bi mu nek ci khilafa gi yep serigne Sidi mukhtar Mbacke semaine bu jot dépense bi xam nga lan lay doon tonu ciep 500000 ne ko foofu fay joxe dépense ba ni mu génne aduna kon mbok yi nañu rafetal ku bëgg seen mam Cheikh Al Hadji malik fa teje mu jug dundam dafa dajale mbokk gi yëpp ne nañ ma wool sama doom fallu ci la bokk ndax ndénkaaneem kenn ku jigéen di mam buri ñang di mbokk mam ya, mam safeetu ñang moo fa nekk ci jigéen mu ne leen maa ngi leen di te daf ko bind boo demee ci diiwaan ba Cheikh Alhaaji bind ko sama mbokk mi ci Touba ku ci wax naka sudul noonu ëllëg waxuma fii ci àdduna di nga ko layoog sa borom bala ngay dem ëllëg nag fa lay rawati ku ciy wax rek na ci wax lu rafet Cheikh El Hadj Malick ko bind kon fa tabaarakallaahu yal na yàlla fayal ñu mag ñi te la may wax ne inna al ibada lillahi ida aradu arada allah loolu mag ñi la xam nga gars yi ku nekk ngi mbaw mag ñi nag fa ñu nekk lañ nekk na tekk fees del waaye yàlla nag dafa am ño xamne ay nit lañ nee ñi ma leen boole sama bop lu ñu nam rek ma ànd ci ak ñom waye kenn du leen xam xam nga mag ñi lu ñu ak ñun waqulu li naa si ja husnan rek lañu xam ci ñom kenn xamu leen léeg-léeg nga dékku nan ma xam diw lam ma defal lamu defal keneen lamu defal keneen lamu defal keneen mag ñaa nga noonu waaye ñun tay nag lu ñu def rek mu jëm kaw kon fa tabarakallah di ziaré ñep di balu haq suñu sañon dañuy nek ak yow toog ba nga wax ba pare ñu soog a mën a dellu dem waaye fa tabarakallahu sa mag sa soppe Haj Malick moo ñu yebal ngambi gàmmu Mbambilor fa la ñu war a teew nii pour wuutu fa wuutu fa wuutu ko fa waxin la sax waaye ñoom kenn mënu leen wuutu waaye mbokk yi ma leen dénk nañ góorgóorlu ku am lu kenn amul war nga mel nu kenn dul mel bañ a topp jamono bii nga xam ne fomi bari na caaxaan rek la Sénégal am wax rek sama bàyyi neena mon si teug nañ lam bi wax waye xam nga ku bëgg daan nopi waaw Cheikh El Hadj Abbas moo ko waxoon ca jagsaaw fekk makoy bindal ben khasida bu mu def nan jaksaw amir fa fi ta'mir fawzukum iza faalta fa inna allaha yurdika والجو فيه شفاء لاذمه تبرأ من دال عدال شفاك البر باريكا وماؤه هكذا يشفى به العلل فتبارك الله فلكم مكيدان فك فلكم سن باي ابو حد مكي تا عين ما ديغا تا غانغا داف ني دان واخ نان مان غان كين دويو ما تي سوتو نك سيدي عبد الحات مكي بارينا كو تي نيك تي نيوم غور دافنا مارسيا تي يو دينا لا كو جوخ بي تي موج موي بي سونو باي عبد الحا عبد القادر مكي فك غور غي فيبر Moustapha saw mooy docteur am professeur Sow bi ngeen xam te nekkoon euh, Abbas Ndaw mooy médecin góor gi ne tey bu mu génn ñetti fan yëpp du génn ndax fi mu nekk nii xool naa ko nangam wax ñu ñëw wax ko ne suñu baay Abdoul Xadar Mbacke dafa wàññeeku. mu woo Serigne Mountaga Mbacke Serigne Serigne Mountaga taal woo Maodo woo Serigne Abdou njaboot gi yëpp xam nga ñooñu mët nañ ndaw mu ne leen dem leen ngeen wutuma Touba fi ñu toog. ñooñu départ guñ Maodo Touré ca sa xarit xam nañ sa digganteeg moom fa tabaarakallaahu ñu ñëpp dem sëriñ Abdou Al sëriñ Muntaxa Taal Maodo si sëriñ Babacar si xalifa bi tey ñoom ñëpp mët nañ mët nañ ndaw waaye fa ñu toog maak moom ci saal ba ca jagsaaw mu toog ba si yàgg ne ma ku fi ne ma ne ko man ak yow mu ne ma indil ma ndox ma jàpp mu jàpp ba pare am marché bu mu def ci góor gi dal dina way man rusna tay suñu bay khadim fa tabaarakallahu Cheikh ahmed Bamba njabotam wàññeeku man ma teud nan dama febar euleug buma dajje mom ak Cheikh Alxaaj mak lan la lene te njabot gi tay ma ci mak damay dem Touba wallahi alazim ñamu yebal ñoo leen jitu kérok fi mak ñangi nonu kon fa tabaarakallahu ñuy roy way ñuy suñu référence ci lu baax nag yàlla nañ ci yàlla saxal maa ngi guddal ndax dama xaw a bari wax waaye mbégte rek mbégte rek wallahi alazim ndax jotaay yi dafa laaj fësal ñu xam ne dara xewul li xew mooy yéen ñun ñun ñii taalibe yi ñoo am problème waaye sëriñ si ñu ngi lëkkaloo bu baax dara réerante wuñ ci benn côté Sénégal nag dafa bari wax lu jóg bu nga bëgg ci wax bu yàggee nga soof ñëpp lañ fi waroon wax wax nañ ko lañ foo la ca def mooy jëf yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko yàlla jar alxuraan lu mu ko wax yaa ayyuha rusul balligh maa unzila ilayka waaye wa in lam tafxal waxal waaye jëf ja la yàlla soxla kon nag luñ fi war a waxati bari wax rek a fi ne te kilifa yi am na loo xam ne talatuñ ko wan nañu yoon wa la ca des ñun la nañu noppi suturaal suñu bopp nit day suturaal boppam yàlla nañ ci yàlla saxal fa tabaarakallaahu ngeen bal ñu xaq maa ngi nuyu sama soppe bi sëriñ sëriñ Jibi Jaañ di ko ziyaar bu baax moom suñu soppe la suñu ñëpp suñuy soppe lañ ñëpp ñu sopp waa marché ba nag rawatina foofa sëriñ bi ñu baax lañ soo fa demee doo xam kan mooy murit kan mooy tiijaan kan mooy lay layeen loolu la ñuy dund man yàlla def na boole na ma ak ñoom lu fa xew ci wàllu diine ma ñëw assister ko fa tabaarakal noonu la ñu ànde waaye doo xam ndax kii fan la bokk te toujours loolu la leen di wax ñu bokk bëgg-bëgg te mënuñu taqali ko dañuy fexe ba rafetal seen ànd mbokk yi nañu rafetal suñu ànd ànd bu rafet ànd bu sincère tey waxante lu baax tey jëflante bu baax su ko defee li ñu bëgg yépp suñu borom defal ñu ko yàlla ñu ko yàlla defal ngeen baal ñu xaq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf jërëjëf sëñ Lam Tooro macha allah. waaw sëñ bi bisimilah. xam naa damay protocole bi dama koy xaw a bouleversé tuuti ngeen baal ma. ginnaaw aoudu billahi min alcheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil xalq سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أه، سيدنا مطورو نيغ لاي سانت بو باخ واخ جي رافتنا سلنا يونا ا أه، جانغال لا جانغال nga fi tay joxe nga leçon magistral ci ñi fi nek ak ci rew mi yépp itam wax nga dëgg ndax dafa am yoo xam ne dafa mat a wax wala ma ci egsi nag damay wax loo xam ne li nga wax ne du hasard dañoo am ci Daaru Xuddoos ma jiite kuréelu organisation bi waxtaan ñu tuddee exposition boobu war na toll ci juróom benni at ci ginnaaw wala juróomi at ñu tudde ko sunu maam El haji malik lu yàlla def la ba mu koy bind ci maam maaram nu bokk ko kenn teewul loola muy jëfi suñu borom tabaraka wa taala mbokk gi nekk fi mooy li ngay wax kon ku yeboo rek tey ci euh, ma jàpp bisu nga xam ne màggal googu euh, bisu altine la woon di muharram euh, ma dem seeti fekk sëñ Aliou Mbacke yàlla na ko yàlla yërëm mi ne woon si kaab ñu yebal ko ci sëriñ ti Tidiane si booba mooy xalifa général ñu war a dem ci Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin ma jiite délégation bi ànd ak Omar Mbacké ak Youssou doomi Gaynde Fatma ñu nekk ñett ak suñu ñi ñuy àndal biñ demee Serigne Abdou recevoir ñu bu baax a baax a baax ñu waxtaan ak moom ci ni ñu war a doxaleeg lépp mu ne sëñ Ahmed dana fa ñëw incha allah ak délégation bu am solo bu jóge ci waawoon nu ñaan ko ndigal nekkoo ndax mën na noo dem kër sëñ Maodo euh, kër sëñ euh, euh, Maodo Touré bi ñu demee mi ngi ñu gàttandoog kuy jàng alxuraan bu neex a neex a neex bu neex a neex a neex nu egg si booba mi ngi jëm ci mag mu dugal ñu ci néegam <coughs> biir néegam bi ñu duggee mu jox ma xilaadu dahab nga xool boo duggee ci xilaat dahab page 70 ca suuf wenn bayit ak ñaari bayit ca kaw ci 71 boo ko xoolee bi ma ko jàngee damaa ubbi rek yem ci gis ci li ma tax a jóg mu wax ci màggal gi altene jeeg booba ci yonent bi lay wax lépp dëppoo ak màggal gi ba ak ci sax ci baatu xudus bi muy daaru xudus gi ñu jóge lépp lépp nga xam ne ba ma ko defee xoolaat ko dama ko wax sëñ sëñ Maodo Touré won ko ko bi bi ma bi ñu boolee ki ñu ganale ci biti ne suuti kooku daal di dellu cinéma ah sëñ bi kat nee na mbir yi kiimaan la ndax mu laa xada bi wax dëgg yàlla wax ko ci ba yan yan xët la nekk ma wax ko ko ginnaaw bi mu ne ma ba ma ko jotaatee mu ne ma yónnee na ko doomi alaaji Abdou Aziz suñ maam yónnee na ko doomam yëpp wax leen mu laa boobu ñu ci def ak namu ca tombee te ba ko maam alaaji di bind ak bi nu koy amal daane ki lee mu jegee xarnu nga xam ne mag ña yàlla ci boppam moo leen daan dicté waaw kon li ñu fi bàyyi dafa mat a topp bu baax nii la demee sunu maam El Hadj Abdou Aziz si nag moom dafa particulier ndax euh, lii xew Sénégal tey ji ñu bari bëgg a baaxal lu bon bonal lu baax yaakaar naa ne turam dong foo ko tudd euh, day daal di mën a saafara loolu waaw ndax dañuy xam ne kon ci ay caaxaan la ñu bari nekk li nga doon wax léegi lu nekk benn nekkal ko benn caaxaan yi bari na Sénégal wax ji bari na ku wax ñu dal sa kaw saaga ba daani ki sax nit ñi dañoo xaw a ragal dañoo xaw a ragal ñàkki teggin gi kenn ku ne loolu neex def ab du moomu bi mu ñëwee ci cheikh mamadou moustapha mu koy wax ci sëñ cheikh gaynde faat ma dëkk boobu muy tindoodi defe naa dégg ko mi ngi ci sama loxo ci sama loxo la fi mu toll lu fa xew man maa moom dëkk ba boole ko ak daaru nayim gi gis nga yàlla nga xam ne kon du hasard ah mu neen na koy yebal tindoodi ci sëriñ cheikh gaynde ma yoru ko ci ki nga xam ne tey mooy euh, sëñ euh, moom lañ tuddee bis bi tey jii yebal ko fa moom itam xam nga loolu it ñu tuddee ko bis bi loolu du asaar li nga wax ah kon nag alhamdulilah ñu ngi lay sant bu baax euh, di la ñaan nga ñaan ñu Sidi Ahmed ak sunu xarit sëñ Mansour danoo fekk Italie benn bi sëñ Mbacke soxna loo war a gont foofa ma ànd ak moom ca suba sa mu war faa ñëw ci fu ñuy wax Kaliyaar yi sëñ Mbàkke ne ma kon kat dangay fanaan bu subaa nga teerul ma ko ma teeru ko muy nit ku baax moom itam yàlla dogal ma nekk ak sëñ Saliou Mbàkke mu jox ma ndoxum Touba euh, daan ma yónni nag ci délégation yu bari ndax yónni na ma ci Malik bu euh, Mohamed Sadis Sadis yónni na ma fa boole na ma ci ma jiite délégation ñu dem Tombouctou ci Xadafi yi muy def loola defe naa ne booba sëñ Mansour moo ko représenté woon loolu it lu am solo la sëñ Maodo ba ma demee di ko yëgal bis boobee itam won na ma kaamil boo xam ne nee na ma sëñ Aliou Mbacke moo ko jox kaamil bi sëñ Aliou kon lii kay wax dëgg yàlla def ceeg sotti ci la alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw nag ñi ñuy déglu ñoom benn lañu kon rek ku benn lewul rek yaa tooñ wala boog la ngay wax mat naa seetaat mat naa seetaat bu baax kon alhamdulilahi euh, lépp benn la واعtasimuu bi hablillahi jamian wala tafaraqu léegi nag li ñuy def mooy buum gi kenn ku ne da nga nangoo jàpp ci buum gi waaye da ngay bëgg a dagg sa wàllu yóbbu fàtte wala tafaraqu ji ah loolu fu ñu jëmee ah Sénégal boo ko dee seet ñu baree bari ñi ngi mettre en question sunu mag ñooñu te li ñu fi defoon moo fi nekk ba nëgëni ba ñi koy critiquer buñ ko talee ñoo ñaa tax bu egsee ci ñoom it ñoo ñaa tax kon loo ca weddi day mel ne ak gore di day am ak ak wor moom lay niru kon alhamdulilahi rabbil alamin delloo si xel yi xam ne mag ñi dafa tracé nañu yoon wi bu ñuy wax référence amul dañuy wax rek référence mat na sëkk waaw kay xanaa ñu référé wu ci rek loolu buñ ko defee rek danañu mën a am jàmm am salaam xalal nañu yoon wi waaye dafa mel ne dañoo bëgg a yekkal ñu bëgg a tuur yekk bi te lu yomb la ndax la gënoon a metti ñom def nañ ko dem baye nok lu gëna yomb kon lu yomb la nan ko top bu baax moy di top sun borom tabaaraku taala di dundal sunna muhammadu rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam lolu kon ñu dopp ci lolu ñuy sant nak wa dëkk bi bu baaxa baaxa baax a baax seen taxawaay suñuy dëkkandoo lañ sama kër a ngi nii jege lool ba taxawé di seen làmp yi muy daaru naim waaw incha allah benen yoon incha allah mara uxra incha allah waaw ma ngi fay tabax juma da ko yëg incha allah jumaa ji egg na waa dafa am lu fa mbaar moo xam ne sëñ Aliou fa la daan nekk ku ko fa fekk <clears throat> ay toolam waa Njolofeen ñoo fa manoon te waa kër maam Alaaji Maalik lañ ñoo manoon ci toolam xamewul woon naar ak pël ak tukkuloor xamewul tijaan murit ak laayeen ñëpp la xamee woon foofu la ñuy defal mbaar mi waaye jumaa ji egg na kon sëñ bi ñu ngi lay dellu di la santaat bu baax di gën a fasante ak yow kóllëre incha allah mbokk gi yàlla dogal na ko yàllaa ko def incha allah ñuy sagu bu baax ci yéen alaaji Abdou it bi may jàngee France dem naa otel Sheraton fekk ko fa fekk ko fa man ak euh, jarbaatu sëñ Cheikh Gaynde ma ak ku ñuy wax Moussa ñaŋ mag yi imaam Ñang imaam Mbay ñaŋ <clears throat> yàlla def nag nu fekk ko fa booba maa nga Toulouse ñëw fa vacances mu am ay tegtal yu ma jox benn bis nag sëñ Mansour moom doomi sëñ Cheikh Tidiane ñëw fa di wutal soxna ummu euh, comment dirais-je euh, euh, kii la ñuy wax pré tarif préférentiel ci ndoxul ak dëgg yar bi booba man maa fa nekk ci Samba Yàlla ma ne ko ah ton fi nga tombe day baax na fi saa si daal di ko koy defaral bég ci lool alhamdulilahi rabil alamina kon alhamdulilah loolu ñoo ngi ciy sant bu baax a baax ci li ko yàlla def kon ñoo lay sant bu baax di ñaan suñu borom sa tànk yi mu fay ko aw yiw ak ñi nga àndal bi barakati rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam kon ñi ngi sant waa dëkk bi ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw kon sëñ bi dafa yàkkamti ñi ngi yem foofu nuy itam dañoo am yu mel nii yoo xam ne buñ fi jógee it fa la dem kon xam naa rek ci barkem <laughs> nu ànd ak mu fexe ba yeweeku rek insha allah ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fa sëñ bi day nee na sëñ mu sëñ bi daal nañ jox sëñ bi mu ñaan ah sëñ jili waaw ah, kay ñëwatu ñaan ab ah. mu sañ waaw sëñ jili nee na li mu sañ mu ngi nuyu dëkk bi yëpp nee na mu ngi nuyu waa dëkk bi yëpp mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi leen di ñaanal mi ngi leen di ñaanal ci yàlla ci yàlla ak sëriñ Touba. ak sëriñ tuuba li ñu soxla lépp. li ñu soxla lépp. ci lislaam. ci ak ci dëkk bi. ak ci dëkk bi. sama borom defal leen ko. sama borom defal leen ko. léegi nag. ay Baye Fall lañu. ne moom moom ñun nag ay Baye Fall am na lu ñu xame lu wër wax. nee na am na lu leen xame lu dul wër di wax. Baye Fall kat. Baye kat. sëriñ bi. liggéeyal sëñ bi. addiyal ko addiyal ko wéy ci ndigal wéy ci ndigal moytu ay tere moytu ay tere moom lañ sant moom lañ leen sant te lañu fas yéene ci lañu fas yéene sax loolu nag moo tax loolu nag moo tax ñun kat bi Mbàkke ah sëñ bi Mbàkke maa ngi lay yalwaan nee na mi ngi lay yalwaan lu muy bëgg wax lu muy bëgg a wax sama mbokki yi yii mbokki mareyeuram yii Ndiaye tàmbalee ko ci El Hadji Jibril Ndiaye général ak ku ak képp koo xam ne ànd naa moom di góor di jigéen di mag ak ndaw ñu dajaleel ma fii addiya ñu dajaleel ko fii addiya mu jox ko Serigne Lamtooro si ibnu Dabaax Malick nee na moom addiyaam la njëkk a jiital mi ngi nii ci nee na ana Jibi Njaay ana képp koo xam ne it da ngaa bokk ci délégation bi bokk ci mareyeur yi nañ fekk fii Serigne Djili Diagne jox ko addiyee Serigne Touba mu jox ko Serigne Lamtourou si ibnu El Hadji Abdoul Aziz si Dabakh Malick ibnu Cheikh Seydi Hadji Malick fa tabarakallahu li rafet na. sëñ bi nee na ñu bokk jàng Fatiha. salaatu ala nabi ak wala salaatul fatiha jàng ayatul kursi yu ixlaas falaxi naasi tëjee ko salaatu ala nabi bu waay man ñu def ko addiye yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yool bi ñu yéene ko sunu maam Cheikh Ahmed Bamba nee na mu wasaare ko ci mboolem aturuxu sufi ñaan yalla jotay bi yalla bu mu doon suñ muju jotay yalla nañ ko teewe at yu baree bari ñaanal Serigne Cheikh Ali yalla na yalla guddal fanam amin amin amin amin amin ya rabbal alamin amin amin si amin si amin si kon lim waxon ñu jang ko bismillah talal len serigne bangi ñaan talal len te wax amin, serigne bangi ñaan amin amin ya rabbal alamin, amin, amin, amin ya rabbal alamin, barke borom amin. amin kon ñu may sëriñ bi rek su ko defee ñu toog nag ndax sunu kilifa yu baax yi nag ñoom ñooy borom jotaay bi te ñoom ñëpp dañoo newoon ci itte dañoo muntu na bañ a dugg ci baas bi rek saafonteeg bokk yi waaye suñu sang yu baax yi di waa kër maam sëriñ Abdourahman Lo ñoom itam ñu ngi ni toog ñooy borom bis bi def nañu tam délégation bu mag ci ndigalu xalif bi sëriñ Basiru Lo yàlla na suñ borom yàggalte may ko wér délégation bi nekk ko jiitee mooy sëriñ Cheikh Lo moom sëriñ Mahmadan loo mi ngi nii toog ànd ak sëriñ Xaadim Lo ànd ak sëriñ sëriñ Maam Daam Lo mi nga xam ne xam nañu ko bu baax ndax mi ngi fii ci Tayba yor daayira alquran te bis bii jiite na njàngum kaamil mi lu ëpp fukki ñu ngi koy jaare baax a baax ñu ngi ànd ak sëriñ Xalil Lo ak sëriñ Basiru Lo ak sëriñ Salih Lo ak meneen sëriñ Dam Lo ak sëriñ Abdou Lo ànd ak sëriñ Moustapha Sow ànd ak suñu baay Masamba Naxe Sow dëkk fii ci dëkk bi di taalibeb sëriñ Abdourahman Lo kon kilifa yu bax yoy ñu ngi leen di dalal fi ci Touba duy sangu di seenu dekk ndax liggey bi kat bañu koy door 1995 yaakaar setup serigne abdourahman Lo mo fi njëkk a fanaan kër Baye Ibra Samb joxe ndigal ñu jang fi jaysun ci khasside googu di Matlabul fawzaini Oustaz ibrahim xam nga da am liggey bu ngeen ma dénkoon fi ci dekk bi ñëwaguma ci nak ñëwaguma ci da ngeen am liggéey bu ngeen ma dénkoon fii ci dëkk bi muy mbaar mii soxna seetoon nag lu ma nekk mu nekk ci yàlla moo ma booleeg moom du def dara te jiitaluma ci du wax dara te jiitaluma ci buy maye sax man lay laaj bis bi muy maye buy ñaani man lay laaj bis bu muy tay gi ci suba rek lama mujjé woné ma sama sëfoor Modou kan dañ koy takal soxna jappal ko bis mako jappal bis légui ni dam kafe mële mako takali takkali soxnaam maam góor maa ko takkali soxnaam maam Cerno maa ko soxnaam Pape Moussa mako takali takkali soxnaam su ko don lim du jeex ndax mbolem ko ne mi andal ñi ma tak seeni soxna loolu nak mo ci gëna mamul mi sama mbokk la xamna nuñ ak soxna si mom mi tuddi na doom soxna si man mi tuddi naa ko doom muy jàmbari seigne touba jo xamné nak duma ko présenter wa dëkk bi ndax wa dëkk bi xam nañ ko waaye nak bëgg na ñu gën ko xam ndax ni ko dëkk yëpp jappé suma ma duy sañu dañ ko japp japp bu ëpp tay ji amon na ngant day fajaru Dakar ndax dafa am doomam ju feebar bañ entré ko mu war ko séti sonu na lol tam xamna ko bu baaxa a baax barki démb dem nañ daje mo xam dane ma tok sax mënuma ko waaye sañu maa bañ a ñëw ndax duñ ma wacc dara ci Seigne Touba may gàntu min ngi ci waajtaayu Porokhane suba day fajaru Dakar te Porokhane ji da metti te wer ñu ci all bi te suñu joge Porokhane danañ amat wer ci all bi waye dafa yoni legi Seigne Mamoun jox ma ñeegu tonu sima ne ma tonu sima bi mako def ci mbaram Seigne Saliw mi ci dekk bi khalis baangi ni tonu sima bi xaalis baa ngi nii loolu danañ ci wat Cerno lool danañ ci ñewat waye mbacke Yalna la yalla doli xewal te doli la tawfiq te maa ngi ñaan tam ñi ñu tuddi bis bi muy Lo ñu ñaanal la ca barki seen mam ja suñ borom gën la tëbb katan defal la tawfiq sëñ muntaha kat waxon na la lo xamne bam la koy wax maa ngi toog ko ñaanal ko ma mom ku ko ñaanul tam mu dem ndax da sant mbacke am tawfiq sëñ touba sëñ muntaha mako wax ñepp fekke nañ ko benen yoon ba ma soxna mam Isa su mam jaara waroon nyamgant. jigen ñi am ngant soxna soxna maam isa man a taxaw fa fa maam jaar taxawoon sëñ Muntaxa ko wax te wàlli yu kenn du ko waxal lu mu waxut wallaahi la asim kon nag moom taxawaayam rafet na léegi nii dane ma cérémonie bi dama ko bëgg na fekke ba mu jeex waaye nag bu ngeen demee ba ci kanam damay génn ndànk baas bi waaye bu defee tiraanga bii nag du ma nekk ba mu génn baas bi ma koy soog a wax dama koy wax ñëpp dégg ko mi ngi nii une si ciment la joxe ci mbaar mi te man laajuma ko ko fàttaliku ko waxuma ko ko fàtt jàpp naa ne sax fàttali na mbirum mbaar mi kon ñu ngi koy sant ko gërëm di sant rek yi andal yalla leen yalla dëgëral ci barke borom tuba soxna Fat Diouf nee na tam su démé maamun mi na tok ak gone yi ba cérémonie bi jeex ndax suko suko manon def mo koy defal bopam kon lolu maa ngi koy sédel wa dëkk bi bu baaxa baaxa baax nañ wajal nak proxan ji ndax proxan képp képp ko ñor mom mi du yebbi du ndeyale du sanni du magale nee da jël bopam ak njabotam ak ku ko ak kum andal àndal mam jaar ndax mam jaar man na day ñëpp lolu la wax ay yéreem tam da koy joxe ba doo am du am lu mu sol waaye bu génnee ñu woddaat ko koddaay la gën a rafet te mooy koddaay li Serigne Touba waxoon ne moom la yonent bi woddu la bista siyabal majdi wal fatli wal hula wa fiika min al axlaaqi ma ahsal kulla koddaay loolu moo gën a mooy jikko ju rafet moom jikko ju rafet la woddoo moo tax du rafle kon yàlla na ko yàlla dëgëral ci barke borom Touba su ko defee nag ñu ñëw ci ki ñu tudde bis bi ki ñu ko darajaale muy Serigne Abdourahmane Lo maamun teel ma teel ma lii ndax lii dama ciy dellusiwaat teel teelaat ma ko sëriñ bi sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu baaxte te di la ziyaar di la xamal nag ne bis bii day ba nu ko tàmbalee ba léegi at mu jot dañ koy séddee kilifa diine gu ñëpp xam ci yoonu murid sëñ Cheikh Aliou mii fi jógee séddee nañ ko waa juróom sëñ Aliou waaw wax ko jox nañ fi tam waa kër. sering Amsatu jox fi wa keur Cheikh Ibrahima Lo jox fi wa keur Cheikh Ahmadou numbe waye ren biñ dajé wa comité d'organisation bi ñone bis bi ren nañ ko tudde serigne Abdourahmane Lo ndax serigne Abdourahmane Lo ay ciirem ci serigne Touba da bari ndax serigne Abdourahmane kep la serigne Touba ne ñi and ak man li bari bari suñ xeyon di dem duma ma dabi kenn waye serigne Abdourahmane su xeyon di dem ma dabi ko ndax damaa yoral loo xam ne maa ko waroon a gàddul sama bopp te itte mayuma ko mooy Touba dama fee bëggoon ne sax dafi jàngale alquran mu jël liggéey boobu jox ko sëñ Abdourahman jël ay doomam jox sëñ Abdourahman doyloo sëñ Abdourahman man def naa benn téere ci doomu borom tubaay boo xam ne ginnaaw doomi borom Touba yi foto sëñ Abdourahman loo képp laa ci def la ko waral mooy kenn daa munta tuddu njabootu Serigne Touba te tuddoo sëñ Abdourahman loo ndax moo leen jàngal dégg naa ci Serigne Moustapha moom sëñ Abdou Khadir mu ne sëriñ Abdou borom dër bi nee na ku jébbulu di murit daaru alimul xabir la ku njëkk a gisee ku ñëw jébbulu Cheikh Abdou Khadir ba muy jàngal alxuraan ci Cheikh Abdou Rahman Lo ku dem ndaam dam fekk fa fukki doomi Sëriñ Tuubaa ak juróom ñu tëdd fa ñooña am nañu ci faatoo daaru alim ndax fa lañ doon jànge waaye am na tam ñu fi wàcce ab liggéey jurbel waaye bañ wàccee ab liggéey jurbel Sëriñ Tuubaa dane nañu leen jël yot leen Abdourahman ndax doy na ma ci loolu lu wér la jëlee naa ci doomi sëñ Xalil sëñ Xalil moom sëriñ Murtada benn bis mu ne ma sëñ Abdourahman jagle gi am kenn amu ko mu ne ma xam nga ki ñuy wax sëñ Xalil ma ne ko waaw moom mu ne moom lañ tuddee sama baay doomi sëñ Murtada sëñ Xalil moomu sa sa sëñ sëñ sëñ sëñ mi ngi tudd Aboubacrine Siddiq laa bëgg a wax Aboubacrine Siddiq moom sëriñ Touba ñu tuddee ko doomi sëñ Murtada doomam moo ne ma sëñ Abdourahman bi mu koy jàngal da koo dalal nee na bàyyam ak ko nettali nanguwut a wax mu jim jim pexé nanguwut a wax ndax musta jël ab yar tek ko ci doomu sëñ Tuubaa moom sëñ Abdourahmane pédagogie la len don jangalé ba li wara dugg ci ñom dugg ci ñom néna mu wax ko wax nanguwut a wax mu sol aw dàllam dem ci seigne touba né ko Abubakar Siddiq dama ko sàmm bañ mu né ko ha mu né ko waw mu né ko naxtaanal ak mom dank dank rek sëñ Abdourahmane del jim jim abou Abubakar Siddiq nanguwut a wax ñu teg ca ñetti fan Aboubacar Siddiq wàcc ab liggéey ma nga ca guy texe ñi ngi ko denc ci buntu barabu soxna aw Bousso mi yaay waajur sëñ Fallu mu delluwaat ci sëñ Tuubaa ko moom yàlla def na ca la gën mu ne ko demal toppatoo ko te denc ko guy texe sëñ Abdourahmane ñëw toppatoo ko doomi sëñ sëñ Xalil mu sëñ Murlaa mi moo ne ma kere bi ko sëñ Abdourahmane loo di jullee dañoo dégg ca kaw muy tari alxuraan nee na bàyyi ma ko ko wax doomi sëñ Murlaa nee na mu dellu ci sëñ bi ne ko moom kat génnewaat na geneen kéemtaan gu bokkut ak jàng bi ma ko doon jàngaloo mu bañ ba far wàcc liggéey mu ne ko lu mu doon mu ne ko bi ma koy jullee damaa dégg muy tari alxuraan ca kaw mu ne ko Abdourahman yow mi jàngal samay doom yaay gis lu ne ndax kooka ba muy mokkal alxuraan gënee ko jamono kon yéen seen waajur wa dafa boole woon zahir ak baatin yenul tam murit yi lu rëy ndax moom képp moo sasoo woon ne bëgg naa ku di murit du tàbbi sawara sëñ Tuubaa ne ko Abdourahman loolu soo ko bëggee day am loo war loolu loo xam ne lu metti lay doon mu ne ko lu doon mu ne ko fii nga ma ko waxee ba baa ngay tàbbi aljanna bët bu set guddi gu ne nga naa fi la kaamil alxuraan bi sëñ Abdourahmane def na ko ñeen fu at yu teg sëñ Tuba waaye nag dafa déggoon sëñ Tuba ba mu waxee loolu sëñ Tuba sëñ Abdourahmane sëñ bi na wax ko loolu mu ne ko mbàkke loolu nag daa métti te it nit munu ko damaa bëggoon kan nga defal ma kattanu malaayika soo ma defalee kattanu malaayika dinaa ko man sëñ Tuba ne ko Abdourahmane defal naa la kattanu malaayika naafila gi ngay naafila kaamil bi guddi gu doo ko tëlee sëñ Abdourahmane nee na naafillaa na ko ba guddi gi wàcc ab liggey neena amna benn bi sax dafa tàmbalee baqara ca kaw di tari ba tabaraka ñeenti sib déssé ko mu fàttali ruku mu sogo ruku ñew ñëw mottali ñeenti sib yi soog a li liggéey ba kon yeen seen mam ñeen fukki at la na kaamilu alquran ngir bëgg benn murit dem sa war kon ñepp ko yoral njukkal waye doomi seigne touba itam mo len jangal te seigne musta laaxan seigne bi kenn waye kenn ci ñom tam musta joye ci kanam seigne abdourahman kon nak bu len tuddé bis bi tay alquran lañ tuddé bis bi ndax seigne abdourahman moy alquran te alquran mooy xemmemteefu Serigne Touba Serigne Touba moo daan jël alquran di ko teg fu ne di ca def lu ne yaa kitaabal karimi anta abibi wa qalili wa xabla kunta tabibi qiraatuha kanzi wa jaa'i wa isati kuni uniltu biha kawni laddallahi saasirti foofee la tawte woon ba yool ma suuxal ko moog yëriñ ya di ca wal ma ne keroog lu dul kitaabu lay fi alquran tooy na ba yàqu ba mbaay waane nee na keroog kaamule Moodu Kalo Ba la yóbbuloog yu ci mu leen a kutuba keroog la am barakatul Qur'an keroog la ro biidaani ak Soudan ba taw ba sawetee la ne kitaabu rabbi képp ku yaakaar sëñ Daam Abdourahmane loo fi ci baas ñoo joxe addee sëñ Daam barke sëriñ Touba. kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu waaye ba mu të sëlmalee la ne bayit woowu mu wax ci jawartu nga xam ne bayit woo la muy firndeel mooy alquran sëriñ bee koy defal kër yu muy ne loola lépp ay teraanga la ñu defal alquran te loola si Abdourahmane loo moo ko ci wutu woon diirub lim nekk ci géej gi ay doomam ak njabootam ak léppam kon bu ñu leen tuddee bis bi tey alxuraan lañ ko tuddee te dëkk bii nag dëkkub alxuraan la ndax taali alxuraan yi suñ fee giim ba tey sëñ alaaji fàllu njaay mi moo yor liggéey boobee kon nag loolu képp tax ñu tuddee ko sëñ abdourahman waaye du leneen lool nag ñu ngi leen koy seedal yéen ñu ko fi teewal ngeen jottali ñu ko Serigne Bassirou mi nga xam ne mooy xalifa bi di békki seen teewaay bii di leen seedeel tam Baye Massamba mii nga xam ne moo fi nekk di seenu taalibe dëkk bi gërëm na ko yéen muy mag ndaw ñoo ngi leen di nuyu bu baax tey jiital ci nuyoo bi kilifa gi ñu fi fekkoon muy Serigne Cheikh Aliou Mbacké di ci teg soxna maam isa Mbacké ahlu café ñoo ngi leen di siyaare bu baax te di leen jox seen wàccuwaay Serigne Cheikh mu ne Serigne Bassirou nee na mu ngi leen di sant bu baax yéen waa dëkk bii. te jiital ci cant gi mag ñi fi nekk te nekke te lañ war a nekke ba gone yi juddu ca loola muy lislaam ak taalibe ak dëkkandoo ku rafet ba mag ñi ba gone yi juddu ca loola mag gi ci li mag ñi màggoon di dund ci li mag ñi doon dund ba ak tey jii sëriñ bi nee na mi ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen gërëm ci jëf ji nga xam ne jëf ngeen ko te lislaam rek tax ngeen jëf ko jëf ko it ngir jëmmi sëriñ Touba ndax Cheikh Abdourahmane taalibeb sëriñ Touba rek la boo xam ne addunaam jëpp jaaxal na ko ci sëriñ Touba njabootam jëpp it jaaxal na ko ci sëriñ Touba bañ na ko ba loolu ñuy wax mbirum àdduna da koo jaay ci sëriñ bi jënd ko sëriñ bi kon su ngeen doxee ba am xemmemteef ci moom ngir jëmmi sëriñ bi tudde ko lu mel nii di lislaam tudde ko lu mel nii ngir jëmmi sëriñ bi kon defalulee ko Cheikh Abdourahmane Lo sëriñ Touba ngeen ko defal ndax ngir lam jeex lool rek lay desee te sëriñ daam jeex na ci sëriñ Touba kon lu ko waaye defal lu ne sëriñ Touba tax nga def ko waaye Serigne Touba moo lay fay kon seen jëf jii na xam ne sunu borom bég na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bég na ci Seyxuna Ahmadul Xadim it bég na ci seen ndaam it bég na ci ak njabootam bég nañu ci ndax lépp lu yàlla tax rek fokk ñoo ñooñu danañ ci bég kon tubaarkàlla jërë ngeen jëf def ngeen lu rafet def ngeen lu baax delloo ngeen maanaam njukkal ndax li sëñ bi wax fii léegi ne Serigne Dame Abdourahmane Loore dafa waxoon sëriñ bi ne ko ba mu leen di wàccee ku ne mën a la loo bëgg bi mu ñëwee ci Cheikh Abdourahmane daf ko ne man day ku santut Mbàkke santut Buso su defee lu naqari yàlla ba sawara yey ko nañ ko bàyyi te teg ma loola moom mu tàbbi àjjana sëriñ bi na ko loolu day soko beugé dañ koy jaay mu ne luñ koy jaay mu ne bis ni ki na di naafila alxuraan ba keroog nga fiy jógee mu ak sëriñ bi di dund lola ba nim fi jógee kon loolu signature bu wër la bu leer la bu kenn nattablu kon yentem su ngeen xolé lolé ba jëf-jëf ji ngir da ca tabal seen yene ca jëf jëm jëf kon yentem wacc ngeen fay ngeen nar ba xorom sax kon no ngi ñaan ci darajey cheikhuna Ahmadul khadim mi waral lepp seen jëf ji yalla na ko Serigne Touba nang bu ko nango yalla na ko ful su ko fulé yalla na ko yàlla na leen ko dencal ba bis penc ba nga bi ne munu ñoo ñak ngeer ngërëmul Serigne Touba mu jox ñuko fa ñom ci Serigne nek bar sax ñepp yit ñu ñaanal leen. yal na leen Serigne yàlla jéggal seeni bàkkaar te marale leen ak Serigne Touba te Serigne Touba nangu seeni jëf ñun ñii fi deseele it dund noo ngi ñaan ci darajey Seexuna Ahmadul Xadim yal nañ gudd fan yal nañu wér yal nañ sax ci jub yal nañ sax ci jaamu yàlla yal nañ am ngërëmal Serigne Touba yal nañ bokk Serigne Touba di liggéeyloo ci darajey Serigne Touba wax ji du gudd ndax nit bu jëfee dama war a jëf. jëf ko ca kam ko war a jëf mu sëriñ bi kon wàcc ngeen ñun ñi ngeen jëf-jëf ji ñun nit yëg nañ jëf ji xam nañ jëf ji yëg gi dong lañ ci mën nag waaye sëriñ Touba mi nga xam ne moom lu mu yëg mu am lu mu mu am njëriñ te man ca dara yëg na seen jëf ji te dana leen ci fay kon tubaarkàlla jëri géen jëfati noo ngi sant bu baax tey gërëm ñun ñii nga xam ne dañoo def délégation ñëw fi ak mag ñi fi nekkoon ñëpp xam dëkk bi ndax mag ñi di tàmbalee Cheikh Mouhamadou Lo mi fi nekk nekkal Cheikh Abdourahmane bi yii fi nekkoon muy Serigne Ibrahima sàmb ñu ko wax Serigne sàmb ak sëriñ Samba mii ñu bokkoon ci njabootu Cheikh Abdourahmane dëkk ci dëkk bii bokk ak dëkk bi ak bokk ci lislaam bokk ci taalibe bokk ci bokk yëpp deret kon ñoo bokkul lépp ñom ñepp kenn ku ci nek fanaan nga ci dëkk bi yennu ci dëkk bi muñ fi ñëwé dëkk bi duñu xamé seenu sëriñ ak mom momé lañ ko war defal lépp lañ koy defal sëriñ Cheikh Lo mi nga xamné ne nekkon sëriñu sëriñ Ibrahima Samb faran na ci nek ci Ibrahima Samb bi ba tay ko dëkk bi ñëw di ko fi fekk ak seeni teranga seeni alal seeni doole seen lépp ñu and ko di ko jox ngir jëmi sëriñ bi mboolem koo xam ne sëñ daam jur na la it fanaan nga ci dëkk bii burut benn du ñaar bañoon nañ ko ba dañ fa daa def ab tournée boo xam ne Serigne Abdou Seye moo ko daa def buñ masaa ñëw dëkk béppay màgg ñëw ci kër Serigne Ibrahima Samb yendoog sëñ bi teral ko ba ngoon jot ñu gontu dem kon dëkk bii dee dëkkub lislaam dëkk bii dee dëkkub taalu bi dee dëkk bii dee dëkkub ab ay gorit yu sàmm seen ngor nangoo liggéey doon jaamikati yàlla doon taalibey Serigne Touba. loola ñun ñi fi ñëw tey jii xam nañu loola lii ngeen di dund jàngu leen ko dangeen ko mokkal te loola ca mag ña ngeen ko jële mag ñee fi ne di gor di jullit doon taalibe Serigne Touba dara ñëw leen du lislaam képp ku ñëw ci dëkk bii soo bëggee gis nit ñi ñëwal ci jàkk ji boo ñëwee da nga fi fekk ñëpp te loolu nag mooy lislaam lépp lu ñuy defal sëriñ Touba yëpp kuy dem fekk leen fa te ku dem bàyyi leen fa kon yéen dëkk bi na ngeen xam ne nit ñi bàyyi nañu leen xel bàyyi xel gi nag weesuwut li ngeen ne loolaa wér di gor doon jaamikati yàlla doon taalibey sëriñ Touba bëggante wóoloonte tey dimbalante loolu la ñëpp xam ci yéen yàlla bi seetaan am yoon ba mukk nag ci darajee Serigne Touba. noo ngi sant ñëpp tey jiital ci cant gi yi dëkk bi te di leen ñaanal ñu yàgg fi ndax magum lislaam yàgg rek la war a def muy dund ci lislaam magum taalibe moo xam ne dara ñor dul sëriñ bi yàgg fi rek la war a def kon yéen mag ñi fi ne yàlla ngeen fi yàgg yàlla ngeen wér yàlla ngeen gunge gone yi ba ci kanam te yéen gone yi it ngeen dollee góorgóorlu bu baax a baax a baax mag ñi noppi nañ ci yéen wàccoo nañoo yéen it nag teg nañ seenu tànk ci lislaam teg ko ci taalu bi teg ko ci ngor teg ko ci nangoo liggéey ba ngeen juddu ca loola ba tey jii yéen ñii yéenee mag ñi kon jàngalatul leen dara waaye na dollee dollee góorgóorlu ndax adduna jiikat di ciy fëkkee daa bari liy nuuru daray bari lool te dara néew lool ko amutu xam nag boo amut ndimbalu yàlla dëgg danga topp lu dara di ca dem ba jeex te doo fekk dara kon li gën a am solo nañ am pas-pasu xam te xàmmee xam te xàmmee nag weesuwut yaar sëriñ bi rek moo mat a toog sëriñ bi képp moo mat a sonnal sëñ bi képp a mat a bàyyi xel ku tàmbalee sëñ bi yem ci sëñ bi lenn lu lay manal dara du am ndax lu mu ci mën a doon sëmbee dox sa digganteeg loola kon na ngeen dollee jàppantewaat na ngeen dollee góor góorlu nii ngeen def bu leen ko wàcc bu leen ko ba saa su ngeen wootee ñëpp ñëw te ku fi ñëw ku ne lu ngeen séq ak moom ci lu rafet moo tax mu ñëw fi kon daal kàddu yi du mën a gudd lii képp lañu amoon luñ ci doon wax délégation bii nag sëriñ Cheikh mii moo ko jiite ak Serigne Khadim mii moom sëriñ Cheikh Lo ak Serigne Ibrahima Lo moom sëriñ Cheikh Lo noonu Serigne bi nee na mi ngi leen di ñaanal ci yàlla ak yont bi ak Serigne Touba yàlla nañ fekkewaat déwén kenn bañ see manqué nag te képp ku fi indi ak wér di yàlla na ko Serigne Touba saafara. bu fi indi maanaam njàqare xol ak rag gi lépp Serigne Touba teelewul dara yal na la ko saafaraal liñ munta ñàkk muy ngërëmul sëriñ biit yal nañ ko am yal nañu Serigne Touba boole ci ñi muy liggéeyloo ndax sëriñ bi day ku bëgg a liggéeyloo dana la jox aw fan ak wér ak wërsëg woo ko mën liggéey yal nañ bokk ñu Serigne Touba liggéeyloo. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. santal ñu Serigne bi santal ñu suñu Cheikh mii toog ak i rakkam santal ñu seen mag serigne basirou ak njabootu mam serigne Abdourahmane Lo gep kon nak dañuy jox euh, señ señ señ galas fii ci dekk bi neeg bi lañ koy ubbil mu dugg fi ñi nga xamne ñoo ñu fi wo nak war nañ leena teral kon nañ leen teral bala ñoo sant ñi nga xamne ñoo doon wax muy kilifa yi Modou dey wax na lu am so waaw Cheikh ñu ngi lay ziyaare bu baax tey balu àq ñëpp di baal àq ñëpp waaw tey ñaan sëriñ mun Muntaxa Basiir suñ yàgg suñ borom yàggal ko ci suñ kanam te wéral ko déglu nañ kàddu yi nga xamante ne bii moom la fi suñu kilifa suñu mbokk di sëriñ Modou loo mu ko doon yëkkati ci turu sëriñ Basiiru Lo di xalifa bi di ñaan Cheikh Mouhamadul Basir Lo suñ borom yàggal ko te wéral ko di wax ne Serigne Modou Lo ñu ngi lay sant bu baax te di la gërëm sant gi nag damay wax ne suñu yëkkatee suñu kàddu yóbbaale nañ ñëpp ndax yow day yaakaar naa ku xam duy sangu xam na la waaye lu baax it xam na la ndax dara ñoru la lu dul lu baax dara ñoru la it lu dul liggéeyal Serigne Touba waaye dara ñoru la lu dul liggéeyal Serigne Dama Abdourahman Lo damay wax ne sëriñ daam abdourahman loo moom kenn ku ci nekk na xam ne jullit bu ne waxuma la murit waaye jullit bu ne rek ameel na njukkal sëñ daam abdourahman loo koo xam ne dundam lépp ci jàng alxuraan ak jàngale ko rek la nekkoon kon jullit bu ne ameel nga ko ngërëm ndax damay wax ne alxuraan moom duñ ne murit bi duñ ne tiijaan bi duñ ne laayaan laayan bi alxuraan ñëpp a ko bokk te ku xam sëñ daam abdourahman loo rek xam ko ci alxuraan kon damay wax ne dulit bu ne rek amel na njukkal sëñ dam abdourahman Lo kon ñi ngi ñaan kep ko xamantene bi tew na fi ñi ngi ñaan ci Cheikh abdourahman Lo suñ borom defal la jamm defal la xewal defal la sutura di ñaan serigne Lo mi nga xamantene bi moko fi nekkal te maté ko sëkk suñ borom yagal ko fi te wéral ko damay wax ne bi nga xamantene bi yëkëti nañ kaddu wax ne kat mom lañ ko jox man bima ko déggé sama xol daf ci sédd lool ku ne xam na ne Serigne Amsatou Lo mi nga xam ne moo jur seex Ibrahima Lo mi ma jur ku ne xam na lim bokk ak sëñ Daam Abdourahmane Lo te damay wax ne sëriñ Touba mas naa wax ne mbooleen ñi nga xamante ne bii ñoom laa doon àndal ku ne ci ñoom am na lu ma dolli ci ñoom ba mu des ñi sant loo daal ne ñi sant loo de jàpp naa leen ngir ñett moom sëriñ Touba moo waxal boppam loolu ca njaareem ne ñi ñu sant loo de jàpp naa leen ngir ñett. ñu ne ko ñett yooyu ñett yooyu mooy ñett yan mu ne jàpp naa leen ngir li ñuy tudd di ma tudd muy doom ku ma ci masa am ku sant loo ne la baa ba ne la bàyyil muy sëñ daam Abdourahman Lo ñu ne ko waaw mu ne ba ko ñaareel mooy ba ma demee ba réer samay mbokk ba ñépp jàpp na sànku naa ku sant loo ma wëri ba indi ma muy sëñ Modou Lo Dagana ñetteel ba mu ne li nga xamante ni bii am lu dul moom muy samay kiraama muy xasida yi xasida gu ma mas bind ba mu ba mu egg ma jox ko sëriñ Masamba Mbàkke mu maas ko sëriñ Amsatu Lo moo ko yëkkati bañ mën koo dégg mu ne kon jàpp naa leen ngir ñett daal ne ku leen njëkk ajjana def leen a njëkk faat lool sëriñ Tuubaa ko waxal boppam ca njaareem kon suñ tuddee bis bi sëriñ Daam Abdourahman loo ngeen ñëw teew fi di njaboot gi te yaakaar naa ne bu ko sëñ Modou loo rek ñëwoon teewee mel na ni ñëpp ñëw nañ kon su ngeen bàyyee yitte yëpp ñëw teewe si ko loolu ak kontaante la waaye nag ñi ngi leen di wax ne dëkk bii nga xamante ne bii moom ngeen ñëw teew si fi ab dëkk la boo xamante ne bii kuy nit ku baax buñ la yebalee nga sawar fi ndax ay nit lañ yoo xam ne ay gor lañ ay jullit lañ ay taalibe lañ ay nit lañ yoo xam ne seenu ñaq rek la ñuy dunde liggéey ak jaamu yàlla rek ku xam Touba duy sangu xam ne liggéey ak jaamu yàlla rek ci lool rek lañ nekk mësuñoo nekk ci lenn lu dul liggéey ak jaamu yàlla kon suñ kun fi war ngaa sawar ci ñëw fi te li nga xamante ne bii liñ ci bokk nag taxul ñuy wax loolu waaye Serigne Modou Lo mii nga xam ne moom mag la si ñun te njëkkoon na yëkkati ay kàddoom léegi yaakaar naa li mu seere ci dëkk bi ñëpp xam nañ ko te moom lu mu seere ci dëkk bi rek dëgg la ndax ci dëkk bi la dëkk kon loolu ñu ngi la ciy sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di ñaan suñ borom defal leen jàmm di sant nag mbooleem ku fi teew damay wax ne mbooleem ku fi teew rek ñu ngi lay sant ci turu dëkk bi yëpp nag ndax dëkk bi moom dara ñoru leen lu dul lu baax te it lu baax ci lañuy ñuy xëy ci lañ go ci la ñuy gont kon suñu wootee bis bu toll nii di sant Serigne Saliou Mbacke woote ko nit ñi ñëw teewe ko nii ñu ko teewe seen xol sedd na ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm di sant Jibi Ndiaye général comme niñ ko waxee léegi rek ndax Jibi Ndiaye général wax naa ko ne ko lépp loo man di am ci àdduna na nga xamante ne bii dëkk bi rek nga am loo man defalal dëkk bi ndax amoo fu su dëkk bi amoo lu ëpp dëkk bi yaakaar naa waxtaan nañ ci ay yoon yoon yoo xamante ne bi te it day kilifa ci man ndax suñ ñaari waajur ñoo bokk benn baay kon loolu ñu ngi ko ciy sant bu baax te di ko gërëm te di ko xamal ne da dollee takk laxasaay bi te xam ne lu baax ku koy wut boo koy yóbbu yóbbu ko fa nga dëkk kon loolu ñu ngi leen ciy sant bu baax sëriñ Modou Lo di leen gërëm di yëkkati suñu kàddu yi di wax ne su ngeen demee ngeen santal ñu sëriñ bi te ne ko ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ñu ngi ballu àq ñëpp di ballu àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah amin ya rabbal alamin amin amin amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin amin barke borom Tuubaa jërëjëf loo sëñ alaaji ak ñi nga àndal ndax ñoom ngay liggéeyandul waaye fii nga dëkk te it bis bi soo gisee ñu jagleel la ko da ngay doomi duy sangu te ñu gis la fa nga nekk nga fay liggéey liggéey bu rafet ñi nga àndal ci li ngay liggéey ngay ak bu rafet ñu lay terale ay bis yoo xam ñoo ñu yow dara xanaa ab liggéeyukaay waaye bokkook ñoom ab dëkk waaye fii nag nga dëkk sa kër waajur a ngi fa nga dal ak ñoom kon nag fu ñu la terale duy sam gii la war a yelle fi la gën a yelle moo tax ren bi ñu waxtaanee ñu ne bis bi nañ ko jagleel général ji bi Samb ndax yayoo na ko waaye nag bi ñu la ko jagleelee itam cofoo bis bi ndax da ngaa njëkk def appel te ñun ñi nekk ci média yi xam nañu appel télévision. yu mel ni yan ko def lañ fay fay xam nañ ko bu baax a baax xam nañ tam ñi koy jël si la ca war te loolu lépp laajoo ci kenn dara loolu tam dafa war a leer ci penc mi kon loolu ñu ngi la ciy sant la ci gërëm suñu neexoon nag duñ la sant ndax sa alal alal yi waa dëkk bee waaye nit su defee lu baax danga koy sant ndax su ëllëgee day sa war loolu moo tax ñu lay sant coono yi nga daj ak ni nga jàllalee communication bi ak ni mu yaatoo loolu waa dëkk bi yëg nañ ko te ñu la ciy sant di la ci gërëm di ñaan yàlla mu gën la tëbb kàttan te may la wér parce que man damay wax ne doomu duy sangu fu mu nekk am fa ndam waa duy sangu gépp am ndam kon nag waa dëkk bi sant nañ la gërëm nañ la li nga wax tam ci ngoon ci oustaz Ibrahima saar wax ko ci suñu nijaay oustaz Serigne daam jaay ñoom ña nga nekkal ndakaaru loolu tam as gor rek moo koy wax ndax ci ngoon dane sant naa lool daam ndax ñoom laa nekkal ndakaaru waaye nag ñoom cër bi ma yàlla jox nangul nañ ma ko te loolu dafa am sëriñ Pape moor Lo dama bëgg a jóg ñu gis la ana sëñ Pape Mor Lo moo fi teewal transporteur yi ci ngoon robinet yi daa coupé ndekki robinet yi li tax mu coupé xamu leen ko sëñ saali coupé robinet yi xanaa kon da ngeen a da ngeen jaaxle xam nga loolu sëñ Saliou coupé robinet yi ci ngoon dañ doon wut ndoxu jàpp amuñ ko Pape moor ne da ngeen a manqué ndox ñu ne ko waaw mu ne xaar leen jël téléphone am am ku mu woo ne ko maa ngi duy sangu jikki dëkku ji bi sàmbo ndox mi daa coupé diw ab forage laa bëgg nga may ko waa duy sangu def téléphone bi main libre mu ne am ngeen ko kon forage bi sayee bàyyi góor nañ xool fi ñu koy gas loolu képp ba ci des bu damay bañ ñu bettuñu nañ nañu xool fi ñu gas forage bi forage bi nag bu ñëwee bu fi kenn doxee di dem fenn dañuy bay bayum ndoor dër yi del si xam nga dër yi fii la newoon salaat si pomme bi ak ñam bi ci soble si yëpp del si ngeen bañ di dem di sori dëkk bi waaw nay leer su ko defee monsieur le maire moom eh, dañ koy dañ koy wax yeneen yi waaye ndox mi moom lijjantiku na waaw ah, waxaale na ko waxaale na ko maa maa ci bañ a àgg benn bilaa laa bëgg ñu dóor ko ba daanu kon soxna yi loolu moom jeex na incha allah forage bi dina ñëw dafa def téléphone bi mais libre mu ne ko te nee na ki ko wax may na ko ñetti forage kon sëñ Pape jërëjëf gis nga ñaari mbir rek am. yor xaalis mën a jëf wala nga yor sa làmmeñ wu joti feneen mu mën a jëf boo ci def baax na xam nga lu bon ku mënut dara rek <laughs> toog di xool rek xool kese rek moom baaxul moom sëñ Ousmane kàddu liñ ci am kaps kon boog lu amul seede baaxul kon ñu gërëm ko dama bëgg ñu ñaanal ko li nga xam ne moom lañ ko dénk mu regrouper tous les pêcheurs ak mareyeurs yi nekk Sénégal ñu dénk ko ko ñu ñaanal ko ci baas bi ñaanal ko ci tànt bi ndax fii ay xasaayit sëñ Tuubaa lañ fi jàng te fii barabu ñaanukaay la nañ ko ñaanal mu yeggaleeg sagoom léegi nag dañu bëgg a jël kàddu gi jox ko sëriñ Youssou juuf moom mi nga xam ni moo yore Touba Pàkk Làmbaay di kenn ci général Jibi Njaay ko lool jàppale ko lool bàyyi ko fële ndakaaru ñëw ànd ak moom yendoog moom alalam fekkiwu ko dara fekkiwu ko keroog ba ñuy def avant première bi keroog ba ñuy def avant première bi nee na naa ko santal jëmm ji muy président Jibi Ndiaye ndax moom mi général Jibi Ndiaye xaritam la lépp loo xam ne ma nga ca rek général la nga ca te nee général mësta tàyyi mësta yokki te nee lu mu ko woo dina ko ci wuyu nee kàddu yi gàtt na waaye nii la ko waxee te lii am na solo ñu wëlbatiku nag jël kàddu gi kan waaw ñu jël kàddu gi jox ko sëriñ Gueye mi nga xam ne mooy délégué marché poisson fële ca Tëngéej. a ah, xam naa dañuy barkeelu rek présenté wu waaye sama jëwriñ laa àndal xam naa moom laay jox kàddu gi mu wax ci sama tur ah yaakaar naa xam na suñu diggante man ak général ndax général yaakaar naa fam ñu teg man Serigne ak waa marché Tëngéej du fu ndaw. ndax soxna yema andal muy soxna mat len job, ak soxna fatou Gay di president march poisson ah general tek na len fu kowe ma andak ak nyar, ñaar ànd ak siñ bay gay mi nga xamne damar daamar ji ñu indi fi mo mo moko barkelo ko sama jëwrin di sama xarit di sama lip, di serigne Modou Nguer nga xamne momit ku ku am tiofel ci general la te gul lol lol kon xamna mom lay jox kaddu gi mu wax sama tour bis bismillah a'udhu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki taalibe yi fi tew yeb gor ak jigen mak ak ndaw ñi ngi len di nuyu bu baax di len siyaar di len jox waccu way bu baaxa baax mu melni nak kaddu yi fi jip tegaat fi yeneen kaddu dana jafe lool waaye dañuy dagaan ci mbaaxu cheikhina cheikh Ahmadu Bamba khadim rasoul mi nga xam ne kum joyanti doo daanu yàlla na nu joyanti ba du daanu ci kàddu yi ñuy nuyu mbokki waa looyeen gi fi teewoon yépp ten tudde leen bis bi ten mat ko sëkk ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ci turu Baye Serigne Gueye mii nga xam ne ah, moom tey ji kàddu gi moo ko waral Baye sëriñ nag di sant bu baax général mi nga xam ne moo ko boole ci bis bii nga xam ne bisub lislaam la bisub diine la sant sëriñ Tuubaa la di bis bu màgg ci lislaam di bis boo xam ne itam noonu am nañ ci tawféex ndax Tuubaa gii lañu dëkk waaye bis bii tey lañ fi mas a teg suñu dëkk bi tey lañ fi mas a teg suñu tànk loolu nag ñu koy sante bu baax bàyyi sëriñ maa ngi ma àndal ñëpp euh, délégation bi euh, kii nga xam ne mooy sëriñ Mbay Géey ak bàyyi sëriñ mi nga xam ne moo jiite délégation bi ak soxna yee nga xam ne ñoom lañ àndal soxna Madeleine Diop ak soxna faatu gay di ay jàmbaar di ay ñaayu xale dar sénéral mii rek bëggu ko sopp ko te dara waralu ko lu may njàmbaar goo xam ne gis nañ ko ci moom ndax Baye Serigne mii kat li nga ko waxee ne taalibe la waaye ku ko gis xam ne taalibe Cheikhina Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasulullah daa yore li nga xam ne mooy wàllu li nga xam ne moo jëm ci président marché central de Rufisque waaye nag dafa yor itam li nga xam ne mooy daahira sahaadatu tulaab bi nga xam ne mooy nekk ca biir marché central de Rufisque ñaari ndombay tànk yooyu moom la fa yore te di ko doxal te yëpp rafet ndax la nga xam ne mooy marché central ni ko sëriñ bi waxee sàng rek amul murit amul tijaan amul xaadir amul laayeen dañoo àndante rek te yàlla tax loolu nag ñu jiital bàyyi sëriñ mii mu nekk ci seen kanam di doxal di doxal di doxal ba général mi gis ko ni tege ji doxé neex ko lol mu ñew samp fa bureau bu mag andante ko wa tege andante ko Serigne cham mi nga mo jité CAPS nuyu bu baax di ko di ñaan li nga xam moko jitt mom la jité yalla defal ko ci tawfiq defal ko ci ndam lu bare bare bare bari ndax kat wax deug yalla lima ma ak ñom bari wul waye fuñu tok ak Baye Serigne rek dana tuddu sen tour li ko waral nag mooy seenum njàmbaar Baye Serigne ñaanam mi ngi sant waa dëkk bi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di sant bu baax général mi nga xam ne moo ko boole ci bis bi ndax kat bu Baye sëriñ baaxee benn ñoom baax nañ fukk ndax képp kuy jëf-jëf ju baax tëju cib néegam di ko xalaat boole la ca biir kooku mën a too koo fay kon waa marché central de Rufisque yëpp sant dañ waa dëkk bi waaye jaarale ko ci général mii nga xam ne nag kóllëreem ak baay sëriñ waaye kóllëreem ak jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ca barab ba nuy jaay jënd fa yaxantoo landi na wir na dëgër na ndax nu ñii de wax dëgg yàlla marché ba nga xam ne fa la ñu nekk tey jii ñoo ko jiite ah ka nga xam ne mooy président ba di Pam Ndiol defe naa général xam na ko ndax bis ba mu fa doon def délégué yépp daje lu ko waral nag mooy cofeel gu nu am ci Baye Serigne waaye taxawaay boo xam ne Baye sëriñ taxaw na ko ci marché central Baye Serigne moom ñayu xare la boo nee daayira murit yi moo ca man boo nee daayira tiijaan yi moo ca man waaye boo nee itam lépp loo xam ne social la buy dox ca marché centrale moo ca man kon daal kaddu yi jarul ñu koy guddal général jërëjëf baat bu gàtt la waaye ku jëf lu baax rek koy dégg ku ne nag mën na koo dégg waaye man nga koo dégg te doo ko moom waaye ki jëf lu baax moom saa su ne jëf rek dana ko dégg ndax dégg naa Serigne Saali Serigne Fallu mbakke mu baax ma mas nañ koo dajale mas naa dajale mbokki taalibe yi ñu di ko berndeel di ko ganale di ko ganale di ko ganale ba bis bi jeex mu war leen a sant mu ne nan daje ca penc ma rek ma wax leen benn batte dem dégg naa bi ñëpp toogee Serigne Fallou dana jërëjëf ku jëf lu baax rek koy dégg kon jëf général ci jëf ji nga xam ne defal nga ko Baye Serigne noonu waa Tëngéej jëpp nag ñu di ko sagoo di ko tiitaroo ndax Baye Serigne day kenn ci nun wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf. ndax dëkk bii di duy sangu. ne ne ndekete dëkku maamam la te xamu ko woon nee na bi ko ginnaaw bi ko général joxee nee na góor gi Njaase Saar di bàyyi ci Ibrahima Saar xamanteeguñu de waaye Njaase Saar moom ak dëggan jëng mi jur way jurum bu jigéen ñoo bokk benn way jur jigéen kon fii dëkkam la lii la ci doon dolliwaat jërëjëf jërëjëf jë ñoo ngi nii ñëpp kenn ku ne ci sa tur ak ci sa ci kàddu kan seen doom juleen bëgg ngeen bëgg ko ana kooku mooy kan mooy général Djibi Ndiaye ñuy nuyu xalifa général de Mouride sëriñ taxa di ko ñaanal yàlla fan wu gudd mujj gu rafet yàlla na ko ko yàlla defal defal ko ko ñun taalibe yi waaye seen taxa Mbàkke yàlla na nga fi yàgg te wér yàlla na nga fi yàgg te wér ko wax yàlla na nga fi yàgg te wér ci barke sëñ Bàmba waa duy sangu seen doom ak xaritam ak qui ak qui nga xamne mom la ko collectif national pour le développement Sénégal ñoo ngi nuyu les ku dekk day sangu di de di jigen di mak di ndaw ci du général Djibi ndjay général Djibi ndjay nak dañu naan général Djibi ndjay ñu ne général Djibi président tous les marières du Sénégal ñu ne président général de tous les mariés du Sénégal moo kan la ñu ne ko mook Alioune Thiam kap ci port ndax Aliou Thiam su fekkee dañu ne général Djibi Ndiaye moo encadré li nga xam ne moom lañ encadré Aliou Thiam moo ko ànd ak général Djibi Ndiaye magam Aliou Thiam di rakkam ñu ànd bokk ñaari kuréel muy collectif national pour le développement du Sénégal ak CAP ci port kon ñooñu ñuy liggéeyal tout le Sénégal na góor ak jigéen mag ak ndaw Alioune ak général Djibi Ndiaye ñu ngi koy liggéeyal Sénégal gépp ñu ne ana ko naa kan mooy général Djibi Ndiaye ñu ne ku baax ku tabe ku bëgg Serigne Touba ku bëgg boppam ku bëgg xaritam ku bëgg dëkkandoom ku bëgg bëgg ay waajuram ñu ne ku ko wax ñu ne bokk ya nit buñ ne dafa baax dañ naan mbaa bokk yaa ko wax kon général li ñu la waxal ñun dara duñu ci akarmati say bokk ko wax ñu dégg ko ñu di ko jottali ci say bokk ñu di ko dégg man maag yow ñoo bokk bawal maa ngi dëkk-dëkk bu ñuy wax mbayeen dimbu fii ci gannaaw ndulo maag yow ànd nañ lu mat fukki at te xamuñu suñu bokk ndumbe ñang mii fi newoon may doomam yor naa ko kon bokk gi ñoo ko bokk mu rafet ñu ànd ko ci rafet def ko ci lu rafet nga dëkk fa rafet ci barkeb sëñ Bamba loolu ñang la koy sant di la ko gërëme dañ ne al bu lekkee aloom ñu ne lëg nan la def ba lekk aloom ñu ne na gërëm coy coy moo naaw tool ca aloom ga gajji doom bi mu tàbbi léegi ne ko coppet kon général say bokk say dëkkandoo su gërëm nañ la say sëriñ ñi nga àndal ci collectif ak kap gërëm nañ leen gërëm sa nga xam ne ni ki nga àndal ci état Sénégal muy ministre de la pêche de Aliou sant nañ la gërëm nañ la Aliou ndooy sant na la gërëm naa la man maa yow ndi joor ak càmmooñ lañ lu ma wax rek dama caa teg saa bët jaraloo ma may wax lu may fen du ma wax li la neex damay wax li nga xam ne mooy dëgg ci man ndax man kat mag egg naa foo xam ne maanaam sa am xëy jeex na ngoon ngont mooy ci des kon ngont moomu naa ci xool yàlla ak yoon nen ak Serigne Touba waaye bu ma ci xool leneen barki sëñ Bamba ko yaakaar ne alal dana tax ma di la wax lala la neex tarsu nga man mbay maa la wax lii dund naa ba am juróom benn fukki at ak nangam samay njël tardé wut lu ma tardé wut duutuma ko tardé te am teraanga kon yàlla wëccu ma kon maa ne waa day sangu yàlla na leen yàlla defal jàmm maa ne waa day sangu yàlla na leen yàlla aar nam aare woon baa ba ca marca mesere ba mu nen fa boob fa ba tottan fa ba xëy ànde ki cuujam doomu adama njaay tegu ko bët kaaraange googee yàlla joxoon baaba yàlla na leen koy yàlla jox yéen waa day sangu muy seex yi muy taalibe yi muy jigéen yi muy mag yi muy ndaw yi jigéen ñii nga xam ne maa ngi yéen ànd ak général madame Ndiaye yaa ñi nga àndal ñëpp góor sant nañ leen gërëm nañ leen ndax bokki tange yii léegi lañ teg seen kàddu nday nday ñing maa ngi lay sant di la gërëm maak yow ñoo bokk nday kon nag day ñing lu ma wax boole la ca yal na la yàlla defal jàmb madame Ndiaye yéen ak général ak jigéen ña ne ca kër ga ak doom ya yal na leen yàlla barkel yal na leen yàlla lafal cat yàlla na leen yàlla aar làq leen fa yàq yëgut jërë ngeen jëf maa ngi nuyu ñëpp Massar Lo ndax kàddu gi Massar Lo ma ko jox de naruma ko woon jël ndax masaar loo mooy kilifa gi nga xam ne moo encadré mareyeur yëpp ba ci général mi kon bu nee waxal mareyeur yëpp dana Massar jóg war a dem ndax jiwaalo daa sori kon danaa wax ci kàddug mareyeur yëpp nag ci baatab général nag général yal na la yàlla defal fan wu gudd général yal na la yàlla lafal cat Ousmane Diouf yal na la yàlla defal xiiwal ak ngeenel ci barke Serigne Bamba jërë gien def góor ak jigen mag ak ndaw sant na len ci barke Serigne da la ilaha illallah borom jaam ni la ilaha illallah la ilaha illallah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 nee na mi ngi balu xàq ñépp di bal xàq ñépp di yokk ci di yokk nag am nuyoom sunub sëriñ ci sunub sëriñ di sama rak di rakam di soo ko ñëw léegi di soo ko ñëw léegi muy sëriñ Abdoul Ahad Fall muy mii nga xam ne mi ngi jóge daaru xafoor rakkam la wëllëreem la doomi sëriñam la kon faaw mu ziyaar ko soo ko dikk nag ci lii nga xam ne moom la ñuy wax li ñuy wax nag ci jibi ci jibi njaay mën naa bañ a sori mën naa bañ a sori ndax nit koy bu koy nit juddulee. yar ko yar ko. ba mu toll nii mu toll. ba mu toll nii mu toll. dikk jóge ca àll ba. dikk jóge ca àll ba. di wax ay qualité di wax ay qualité am. ya ngay wax ci moom. ya ngay wax ci moom. nay dëgg. yàlla nay dëgg. ndax mën ngaa wax ci moom. ndax mën ngaa wax ci moom. ba jóge fi. ba jóge fi. ay nit jéppi la. ay nit jéppi la. mën ngaa wax ci moom ba jóge fi mën ngaa wax ci moom ba jóge fii ku la xamul woon it ku la xamul woon it xam ne yow mii nitu dëgg nga xam ne yow mii nitu dëgg nga jibi mii jibi mii ñun ñi ko topp ñun ñii nga xam ne ñoo jarul may limi jarul muy lim ay tur waaye nag ay kilifaa ngi ci waaye nag ay kilifaa ngi ci donte ka man donte ka nag moom moom Serigne Djily Diagne mii borom yeel bu sew la borom yeel bu sew la gis mbooloo mi ko wër. mbooloo mi ko wër. moom Jibi Njaay mii moom Jibi Njaay mii. xam nañu sewuñu yeel. xam na ne ñoo ñooñu sewuñu ay yeel. te bu jógee. te bu jógee. ñooñu topp ci moom ñooñu jóg topp ci moom. kon lu tax kon lu tax. gis ngeen fii sëtub Alaaji Malik. gis ngeen ko fii sëtub Alaaji Malik. kenn képp a dox digganteem ak Alaaji Malik. kenn rek a dox digganteem ak Alaaji Malik. ndax kooku caaxaan dina ko tax ndax kooku caaxaan dina ko tax a jóg. sëñ ma Lo mee. sëñ Massar Lo mii. nekk ba ba ba ba jiwaalo. nekk ba jiwaalo. ak i natt ngoom. ak i natt ngoom. mag fuuf Jibi Ndiaye. mag fuuf Jibi Ndiaye. bu jógee. bu jógee. ngir Jibi Ndiaye. ngir Jibi Ndiaye. am na lu tax. am na lu tax. ñii nga fi gis ñëpp. ñii nga fi gis ñépp kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. mën nga faj soxla. mën ngaa faj soxla. soo ko waxee. soo ko waxee. ak soo ko waxut. soo ko waxut. xam nga ni kii de. xam nga ne eh, Pape Mor bu mënul woon a faj soxla bu mënul woon a faj soxla. du taxaw fii du taxaw fii. ni bu dem ndox rek. ni bu dem ndox rek. dinaa leen toppatal forage Youssou Lo nga ne. yu nee na nee na Youssou Diouf a ngi nii. mi ngi nii toog sëriñ mi ngi nii toog mi ngi nii toog. ku xam làmbaay ku xam lambaay. xam pàkkub lambaay xam pàkkub lambaay. bu leen fi taxawalee. bu am na lu tax am na lu tax. kon jërëjëf Ndiaye. kon jërëjëf Njaay lii may wax lii muy wax yàlla rek moo tax mu di ko wax ndaxte wax dëgg yàlla ndaxte wax dëgg yàlla am na fu ñu féete am na fu ñu féete am na fu ñu féete am nañ fu féete kon kon Jibi Njaay Jibi Njaay ñii mu àndal ñii mu àndal doy nañu sëkk doy nañu sëkk am njàngat ci moom am njàngat ci moom ndax taxaw ndax taxaw di wax nit di wax nit ay qualité ay qualité ba mu jeex ba mu jeex loolu kat. loolu kat. man de ñaanal ko moo ma gënal catu ko. nee na ñaanal ko day moo ko gënal catu ko. te li mu bëgg. te li mu bëgg. ci réew mii ñu ne. ak seen dëkk bii. ak dëkk bii. su ko ci yàlla yeggalee. su ko ci yàlla yeggalee. ku taxaw ci dëkk bii ku taxaw ci dëkk bii. di nga gis njariñam. ndax mbooloo. ndax mbooloo. jóge Fuuta mu ñu jóge Fuuta ñu jóge Fuuta ña jóge Kajoor ñi jóge Bawol kenn ci kenn ci xamul duy sangu musuñu fee ñëw dégg rek lañ ci te am na ñoo xam ne yoon wii du seen première yoon te kat te kat sëriñ si ñu topp sëriñ si ñu topp te yaakaar leen te yaakaar leen mënaluñ leen nag lu dul lii wo bu ñu woo nu wujji leen. buñ leen bu ñu woowee ñu wuy ji leen. bu ñu liggéeyloo ñu liggéeyal leen. bu ñu liggéeyloo ñu liggéeyal leen. buñ ñu laajee ñu jox leen. bu ñu laajee ñu jox leen. ñoo ngi koy defal Jibi Njaay mi. ñoo ngi koy defal Jibi Njaay mi. ku fi ñëw rek. ku fi ñëw rek. loo man bu la ko laajee nga def. loo man bu ko laajee nga def. kon. kon. yàlla na ko yàlla yeggale. yàlla na ko yàlla yeggale. ci yéeneem. ci yéeneem. ci ay bokkam. ndax moom kat ndax moom kat mu am ku ne ku am ku ne te nga am njëriñ te am njëriñ bu sañoon bu sañoon di nga xam dëkk bi xam dëkk bi boo amee man-man boo amee man-man di nga ko fi def te am na ñu mu xam te am na ñu mu xam am na lu ñu man am na lu ñu man ndax dafa am lu mu leen mënal ndax dafa am lu mu leen mënal kon ñoom ñooñee kon ñoom ñee la mu leen mënal la mu leen mënal bu leen ko defalee bu leen ko defalee. bu leen sante li mu liñ ko mënal. bu leen santee li mu leen manal waaw danañ ko def ci danañ ko def. yàlla na ngeen ci yegg. yàlla na ngeen ci yegg waay. waaye yéeneem. bu ko ci yàlla yeggalee ku dëkk fii di ci teg sa bët. sëñ Modou Lo nag maa ngi lay sant. sëñ Modou Lo. sëñ Jiili nee na mi ngi lay sant. ndax ba ma xamee ne doomi ndeyu Jibi Njaay mii nga. nee na ba mu xamee ne doomu ndeyu Jibi Njaay mii nga. li ma lay gis ca bureau ba. li mu lay gis ca bureau ba. nga dikk fa diko taxaw nga dikk fa diko taxaw do fa dikke do fa dikke ñooy seen sëriñ. fay dikke yang fay dikkee. ak ak ko ak dimbali te diko ñaanal te diko ñaanal te diko kon kon. ñun dinañ la ko santal. ñun dana santal. ndax yalla ma ko ànd nañu lu ëpp ñaar fukki at kon xam na ko bu baax yéeneem nag ci Jibi Njaay ak mareyeur yii ba ci mortaale géey bu mbuur mu baax nii na ngeen xam ni fi mu teg Jibi Njaay fa la leen teg te ku leen xam. te ku leen xam. teg leen. te teg leen. fi ma teg fi mu teg Jibi Njaay mu teg leen fa mu teg mu teg leen fa. lu la Jibi Njaay nangul. lu la Jibi Njaay nangul. danañ la ko nangul. danañ la ko nangul. te mën nañ ko de. te mën nañ ko. fii mu nekk day. fii mu nekk day. lii ñu ànd ak moom lépp. lii ñu ànd ak moom yëpp. ci ngor ci ngor. akuk taalibe akuk ak jullit ak jullit. ci la ñu àndee ci la ñu àndee. ku ci ne. ku ci ne. Jibi Ndiaye mii nga fekk si. Jibi Ndiaye mii nga fekk si. sam nawle sam nawle la. da ngaa nawloon teg moom it. da nawloon teg moom. ngir ànd ci ngor ngir ànd ci ngor. lii ñu nangul Jibi njaay lii ñu nangul Jibi Ndiaye. da leen koo lebal. da leen koo lebal. Moussa Yekini. Moussa Yekini. barki dem rek la fa Jibi jóge. barki démb la fa Jibi jóge. ak ak bu ma ko dee lim marière yi du jeex. nee na bu ko dee lim marière yi du ñu jeex. kon nag ñun. kon ñun. sant na sant nañu. madame Ndiaye. madame Ndiaye. yaa soxna Youssou soxna Youssou boobu nga àndal. mu Youssou Diouf mii nga xam ne mooy Youssou mu baax mi. jibi kat. jibi kat. sa soxna. sa soxna. waaye wana nga ngor gu mat waaye wana nga ngor gu mat sëkk. sëñ Moustapha sëñ sëñ Moustapha Mbar. Mbar Fall Moustapha Mbar Fall. dafa wax ni dafa wax ni. moom dey moom day. xamul euh, gaynde gu góor. xamul gaynde gu góor. ak gu jigéen ak gu jigéen. bu ko gisee ci àll. nee bu ko gisee ci àll. fexelu ko ci musal rek lay def. fexelu ko ci musal rek lay def. jom ji jibi njaay am jom ji jibi njaay am. wane ngeen ko wane ngeen ko a Ndiaye. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. li ma yéenee wax li mu yéenee wax. xajul fii xajul fii. te mënu koo wax yépp kon nag ñoo ngi sant yàlla ñoo ngi sant yàlla. di sant ñëpp di sant ñëpp. Serigne Lo loo nag Serigne Lo mii. xasaay tey métier am tey métier am. waaye fu mu dégg ñu jëm fa. waaye fu mu ñu jëm fa. dina waaxu dikk ñëw taxu seen wet. yëkkatu na fi bay yëkkatu ay bati bayit xasaayit. te kenn waxu fi nag te kenn waxu fi nag. lu gën li muy wax maa lu ko ëpp. wasalaam macha allah. ah seen doom. bokk ci yéen seen deret seen lépp. di président Jibi Ndiaye nee na asalaamualeykum nee na mi ngi nuyu ñëpp nee mi ngi jiital ci nuyoo bi chef de village bi nee na di ci teg imam bi Barissa Ndiaye di ci teg wéyjuram Ablaye Ndiaye mi ci kër gi. di ci teg ay nijaayam yi ci dëkk bi. di ci teg mm, di ci teg yaayam. ak maire bi nga xam ne tey jii mooy maireu dëkk bi muy sëñ Mademba Diouf. di ci teg sama doomu ndey di di ci teg nag doomu ndeyam yi sant loo sëñ Modou Lo. duy song moo ko ci dàqal. ndax nit. daraja joo mën di am. daraja joo mën a am. say mbokk yëg ko. say mbokk yëg ko. moo gën ay jàmbur yëg ko. moo gën ay jàmbur yëg mbokk sama mbokk te lii nga xam ne ay bokk a ko def. te wu ma te moom demandé wu ko. te te yëgul fi nga waxtaanee. bi ñuy waxtaanee bis bi yëgu ma ko. ñu jël bis bu mel noonu. ñu jël bis bu mel noonu. ne ko bis bi kat. ne ko la ko. la ko. te dëkk ba gënoo fa. mënoo fa mënoo fa. Eh, dàqoo faa jàng. ëppoo fa xam-xam ëppoo fa xam ñu tànn la ñu tànn nee na loolu lu rëy la ci moom. kon nag. ñii nga xam ne ñoo ko def di ay moromam. ñii ay rakkam. ñii di jarbaatam. nee na daal desul tëran ko dara dara dara. léegi nag li des nag ci moom la des. ñaan yàlla rek. ñaan yàlla. sama xarit yi xam ne xaritam yi nga xam ne nit ñu baax lañu. lépp loo xam ni. sumb nañ ko fi. ànd mu ànd ko mu ànd ko ak ñoom. te yàgg nañ ko def. Euh, damay ñëw ci président Alioune Thiam moom ngeen di wax. dafay ñëw ci président Alioune Thiam moom nga xam ne su ma déggee turam sax damay lox. nga xam ne rakkam la.

ku mu xam ne xam nga Jibi Njaay sax da koy fonkaale man de xam naa ci dara ne sëñ laa jéem mi da koo woo ne duy sangu de dañuy ubbi jumaa ji te bëgguñu nga yëgoo ko fenn moo tax ñu teel la koo wax am na nag lu manqué mu ne ko nag euh, sëñ Abdoulaat lu manqué mu ko jàkk ji de amagul ay rajo ay rajo mu ko ah neen mu toog ak Alioune mu ko lan la mu ne ko ah man ne dañ ne ma sam dëkk moom ñoo amul rajo mu ne mu ko ñaata la mu ne xamaguma ñaata la mu ne ko laajal ñaata la mu ne woo sëñ Abdoulaat ne ko defal ma bina mu ko defal ma bina mu jox ko bilan bi na ma montant mi nangam la mu ne ko xaar ma yónnee la ko léegi ma yónnee la ko ndax sa dëkk mooy sama dëkk te loolu te yaay sama mag mu daal di ko yónnee ci tàng tànk bi ñu jox ko sëñ Abdoulaat kon loolu war naa tax waa duy sangu xam kan mooy Alioune Thiam muy nit ko baax xam na lépp loo xam ne Jibi Njaay mi ngi ci moom da ciy nekk génn. lépp lu mu génn. da cay génn. da ah? dina def ay pexe ci sutura. waaye boo nee général Jibi Ndiaye. ñoo xoo ci moom lu baax. dinaa ma bàyyi ko rek man dinaa ko bàyyi yow daal demal toog rek man dinaa ko gérer dinaa ko gérer waaye kooku moom banaa ko kooku mooy Aliou Thiam. am yéene ju mag. ci dëkk bi ci waxtaan nañ ci lu bari. di nuyu na Gassama. di nuyu nag Kajali Gassama directeur général marché central au poisson. yaayam moo feebar. mu ne sama yaay nii mu mel nii mënuma koo bàyyi. ëppal na téeméeri at. te dañ ko enterré. te dañ ko enterré hôpital. su ma ko bàyyee dem. mën naa ci am yaraange. loolu moo tax mu yabal euh, délégation. waaye xamal na ne. xamal ne ne ko ne ko loone maa ngi ci kon Kajali Gassama ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant nag mbokk mi jógee marché central yëpp bàyyiwul kenn di leen ñaanal yàlla ñi xam ne ñu ngi koy def ren bu déwénee mu yokk incha allahu déwén day di gërëm ñoom Cheikh Samb ñoom Jib Ndiaye yàlla dama dimbali yàlla da koo dimbali mag ñi xam ne ñooy suñuy mag man fii ci dëkk ñi nga xam ne ñooy ay magam fii ci dëkk bi te féete ma mag te féete ko mag dañ koo bëgg bëgg gu wér sax bëgg gu wér goo xam ne amuñu ci sago kon ñoom ñëpp kon ñoom ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm te xam ne mi ngi seen disposition lépp lu waay soxla te defu ko xam leen ne mënu ko waaye lépp loo xam ne mën na ko su ngeen ko ko waxee rek dina ko def ndax nit ki amul lu dul dëkkam ndax dëkk bii sama yaayam fi la juddoo baayam fi la juddoo moom mu juddoo fi ku fi dul rakam magam nga wala nijaayam nga wala sama nijaay waaye ba dëkk bi jeex kon dëkk boobu mënul rek lu dul bëggu ànd ak yéen rek ci lépp lu ngeen nekk rek ñu àndandoo rek nekk ci loolu na woon na yëkkati kàddu yi joxe ko kon ni ngeen ko waxe woon nag danañ ko teg TFM bu soobee yàlla lépp lu mu ci war a def dana ko def bi ci bis bi nag. ñëw ñu mu siyaare ci bis bi nag. waaw waaw. loolu nag maa ngi koy mi ngi nii sama poos. xam nga moom. moom daal moom noonu rek la may def. 400000 francs la. juróom-ñetti fukki junni juróom-ñetti ko ci bis bi. jërëjëf sagara joxal ma Alxaaji Fall. ah sëñ bi jërëjëf Ndiaye. ñu ngi lay santaat di la gërëm rek niñ ko waxee soxna yi nag jotaay bi yàgg na sax waaye lépp njariñ la te Cheikh du Moussa ne na ñëwul ku tàmbali ku àggale la ñee kàddu yi itam daanaka jeex na ndax dañu bëggoon jox rek monsieur le maire. loolu la yàlla dogal ndax boo gasee forage di sawu naan si dagga naan si tay naan si daaru naan si ñun ñoo ko wàcceel kon sëñ bi ñoo ngay sant di sant bu baax sunu nijaay aussi muy tonton général Jibi Ndiaye mi ngi jagleel bis bi ak njabootu sëñ Abdourahmane loo gi fi jóge ñoo ngi sant ñëpp di leen jaajëfal ngeen ñaanal ñu yàlla dimbali ñu ba confiance bi population bi am suñu jox ñu ko ñu bañ leen décevoir yàlla dimbali ñu ba lépp loo xam ne namm nañ ko wala yaakaar nañ ko fee def suñu borom dimbali ñu bañ man ko def ko si la rafet di sant sama frère Laat Fall bi ma dendal aussi ñu bokkoon langue gi maanaam moom def xëccoo ñu juróom benn yàlla def ñu jox ma ko sëñ bi ngay sama sëriñ maa ngi lay ziar ak délégation bi nga àndal kon daal xam naa foofu lañ koy tënk ngeen ya ko ni ñaan bu baax ba yet bi koy toll ci ñun yàlla wàcc fi ay xéewal ku fi indi jàngoor mu saafara la ko ku fi indi ñàkk mu saafara la ko wasalaam maanaam bis bi man dafa doon mbégte ci man ndaxte wàllu àdduna dafay jaar muy élection maire kee nekk suma xarit di ba nga xam ne su ma doon tànn benn xarit dans la commune de Dalangaabu moom lay doon chaque année sama kër lay dal màggal yàlla def ren liste yi ñëw séparé mais campagne bi li muy duré lépp man ak moom benn lañ damay dem seen kër muy ñëw suma kër te mënoon na ma moytu ndax daf ne damay moom mu dem ànd ak keneen bàyyi yàlla dogal mu jot commune bi tey mu ànd ak mon ami et frère Cheikh Ngom nga xam ne ñoo defandoo lépp moom itam ñëw passé la journée tout la journée presque see moi indi fa ay teranga ñu ànd àndandoo ensemble ñëw dugg ci base bi. dafa doon loo xam ne mënu ma ko ñàkk a wax ndax fi ñu toll dafa bëri des communes yoo xam ne nii li fi jaar daf leen a tàggale. boole leen ñuy reyante kilifa diine yi dugg ci ñu xeeb leen ndax ànd ak nit ñu wàcce ko daane ko dafay ñaaw ñun nag yàlla musal ñu fii mu am des gens responsables ay nit yoo xamante ne bii dañu am esprit de dépassement lii dañ ko defoon entre parenthèse bi ma gisee sama sëriñ ñii di Abdoulahat Fall keroog bi ñu nee Demba moo gagné moo fi njëkk dawal otoom dem lies moo fa amoon toute la population de Ngabou sorti mu ñëw xuus dugg akulaat Demba ma xëy dem seen kër man dafa doon loo xamante ni bii dafa rafet te dama am confiance ci Demba ndax c'est un ami que je connais très bien ñoo defandoo lu bare bare muy nit koo xamante ni bii yàgg naa defal satisfaction les jeunes de Dalla ñi ngi nii teew dans toutes les confessions confondues nag laay wax ñëpp nag laay wax lu ne def na ko fii nii te li tax ma gën a bég mooy c'est la première fois c'est la première fois que le maire de Dalla passe la nuit ici ci màggal jot maire commune bu Dalla Ngabou ñëw toog man conseil municipal laa doon doon dama daan am la meeru ngay day ñëw fanaan ci baas bi wala mu fekki cérémonie meeru daaru nay ñëw délégation commune maire bu tay Taïba ñëw ñu ne ana maire bu Dalangaabu da ngay kaata suuf si yow mi nga xam ne te conseil municipal ba nga bokk kon nag jalon bi mu teg tey nga xam dañ ko far rek mu ñëw def lii kon donc population yi war nañ gën a damay ñaan ñëpp rek ñaanal ko yàlla dimbale ko xëy na xale la mais am na expérience am na compétence te il est bien entouré te ñun aussi peut-être bokkuñu woon ak moom lis mais tàllal nañ ko loxo ba lépp expérience boo xam ne amoon nañ ko danañ ko partage ak moom maa ngi sant ñëpp di gërëm ne asalaamaaleykum wa jaxasoog sëñ tubaa jaxasoo goo xam ne séparation dootu ci topp ndax ci jamonoom lañu amee kër sëñ tubaa muy kër gi ñu defan ko ay sàkket ba nañ ko tabaxee waaye itam ci jamonoom lañu naa lii di ko xalaat ba ci jamonoy Seex Sidi Muxtaar mu àgg ak sëriñ Muntaxa mi fi nekk ñu jullee ko daaw waaye lu jiitu sëñ Saaliw nag garab goo gis fii rek dañ fa daan yendoo bëlët ak kart ak yu ni mel ba ngoonee ñu dem terrain football yi bi sëñ Saaliw ñëwee nag dana jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li sëriñ Tuubaa defoon ci mag ñi su ma ko mënul ma barkeeloo ko te mën na ko waaye tiraanga moo taxoon mu wax loolee. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara ba saahibul fadila muhammadul muntaqa al basir xalifatul aam li taifatil muridiya yàlla yàggal ko fi lool te mu wér di ziyaare mbooleem xulafaa yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci biir réew mi waaye di siyaar kilifa yu tedd yii nga xamante ne bii ñoo nekk ci baas bi ak ñi nga xamante ne bii ñoo fi jiitu woon te jóge fi buñ waxee ñi nga xamante ne bii ñoo jëmmaloon bis bi di waa kër sëñ Abdourahman Lo Serigne Cheikh Aliou Mbakke teewoon na ci jataay bi bàyyi na fi sëñ Ibrahima Mbakke mu bokk ak moom lépp di chef de village su Daaru Naim lam toro si di dom ci serigne Abdul Asis si xaritou Sénégal buma ma mané xaritou aduna ñepp bëggoon serigne Abdul Asis si jële won na ci mom genn kaddu ko moko wax ci làmmiñam ma dégg ko mune ab julit waru di gañ soxlay nit faj soxla mo gën gañ soxla ñu ne ko gañ soxla moy lan mu ne nit ki amul lenn lu mu yaakar lu dul yow ñew ci yow soxla ab dépense nga xamne ne joxone ko témèr bu ca añu rër ci dana ca mëna a añ nga yëkëti kot kot lamb sa poste jox ko ñen fukki dërëm néna da nga gañ soxla waye fajoo ko ab jullit day faj soxla waye bu koy gañ lool ci baye lam toro si mi la ko déggé muy sëñ abdoul assis si kéro ba mu ubbi jumaay njëlofeen ji waxna ko loola ma dégg ko mak sama turondo Ibrahima Diallo ñoo andul ñuy nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp kàddu gi ñu ma jox nag diis lool ndax buñ ne ci kaddu waa dëkk bi yëpp yaay wax ci kàddu góor ñi jigéen ñi ndaw ñi diis na lool waaye ñu jëfandikoo la tafalu shay'a bi xayril isn fal isn shartun fi xaboli saani bu leen jëfandikoo dara lu àndut ak ndigal ndax ndigal bokk na ci sart yi tax ñu nangu say jëf kon ndigal googu rek leen jëfandikoo moo tax kàddu gi mën naa oyof ci ñun ñuy teel a dog ngant na xam ne kàddu goo xamante ne bii dëng na ci ak doyadik doomu aadama la ak sama ñàkk xam-xam ak sama làmmeñ ñu setut waaye kaddu waa dëkk bi gënoon naa leer loola. ñu yëkkati suñu kàddu ci kilifteefu sëriñ Kamal Mbakke muy làmp boo xamante ne bii yàlla moo ñu ko indil duy sangu muy jàmbaar ci yoon wi dig bay Faal. di ñu digal te lum ñu digal moo cay jiitu sëriñ Kamal fatay bee moom lañ ko fa tegaloon mu amoon yéeney teew fi lool waaye tànkam mooy metti am na délégation bu mu fi yebal ba ñëw wax ñu loolu ñu koy ñaanal yal na ko yàlla wéral yal na ko yàlla sotti kàttan wéral ko ba nga xamante ne bii jataay bi buñ ko teewatee mu fekke ko ci kàddoom mu ne képp koo xamante ne bii teew nga fi mom nga ko teewal muy ñi sante mui muy ci ñi santu lo ak wenen sante wo man di sante waye ci kaddu al imam serigne Aïssa Ndiaye waye ci kiliftefu tefu gor mak sam mi nga xamantene bi mom la yalla tek ci bop dekk muy chef de village waye ci kiliftefu serigne Alaaji fallu Ndiaye mi nga xamantene bi bii ñayu xare la don suñu rak don suñu morom don suñu xarit jiite daayira bi nga xamante ne bii mooy daayira mu baw wa asidiqin Serigne Saliou Mbacke moo ñu ko tuddee woon mu baw wa asidiqin mooy lan wàccuwaayu dëgg biñ ko defee ba mu ñëwee dañoo daal di dem ci sëñ Aliou Mbacke yëgal ko ko dem ci sëñ Cheikh Lo moom sëñ Amsatou yëgal ko ko dem ci sëñ Cheikh Lo moom sëñ Ibrahima Lo yëgal ko ko mboolem kilifa gu fi nekk rek dem nañ fa. waaye kàddu gi ñu waxoon rek mooy yoonu sëriñ Touba dañ koy dundal waaye kenn du ko dundee kàddu kooku nag ki ñu ci gën a dimbale ñi ñu ci gën a soññ mën nañ cee lim jawrin Njaay mais muy ndonga Talla Njaay moo njëkkoon yore daara ji waaye dafa yokk ay tànkam daanaka daara jam nekk yor féete Touba ba tax na mu yëkkal ko Alaaji Njaay Alaaji Njaay di doxal liggéey boobu noonu kon ñoo ngi sant ñëpp te di leen gërëm ci seen kàddu lañu ñu yëkkatee kàddu képp koo xamante ne bii teew nga fi muy góor di jigéen waa duy lay sant wadu duy lay gërëm waaye waa duy lay ñaanal bu ñu yëkkatee suñu kàddu ki nu war a njëkk a sant te ñaanal ko mooy ki nga xamante ne bii moom la yàlla teg ci commune bi muy Mademba juuf di suñu rakk di doomu Baye Moussa Malaw Diouf ak képp koo xamante ne bii ànd nga ak moom liggéey bi ndax ab yen la boo xamante ne bii koy def gannaaw teg na la ko yàlla na oyof waaye am na ku ne ma wen bi bu mu oyof nee na bu oyofee dara néew ci yàlla na diis gànn te yàlla téyel ko boppam barke alxuraanu karim barke borom Tuubaa waaye ñuy sant képp koo xamante ne bii jóge nga ci barab te ñëw ci teew ci baas bi ngir jëmmi Touba duy sangu waaye nag mënuñoo ñàkk a tudd kenn ndax ku lakk mburu da nga tudd ab dëkk muy général Jibi njaay général suñu moroom la sama nijaay la waaye suñu moroom la ñoo defandoo lu baree bari am na loo xamante ne bi moo ko nett loon fii danañ ree ba tas wala da nga am ñoo xamante ne bi dañ lekke eh, sawaay daana def loolu waaye man nangul ko fa man nee naa ko buñ demoon ci jàkk jamaa lay jiite waaye li nga xamante ne bi yàlla may na la ko ci gudd loxo yàlla may na la ko ci personnalité dama la ko nangul ñetti nit bu ñu àndee dox ab bis ba bis ba jeex ñu tàggoo kenn beru ñaar ànd di dem ñaar ñooñu danañ waxtaan ci ka ca des man général oustaz Ndiaye dañoo bokk dëkk fii yàlla nattuñu ñu féete dakaar di liggéeyee foofu te lépp lu muy def ne ma kara woo nga oustaz Ndiaye na ngeen daje barab sàngam ñu ànd daje ànd di dox benn mbir ba mbir ba sotti ñun ñaar ñu retourné bàyyi ji léegi nag ñun dañ koy jëw jëw ba lan la dama naa ko Jibi Ndiaye xam nga luma ma rek ci mom dafa am personnalité Jibi Ndiaye bu Macky Sall doon ñew Jibi du sansé togi na wé lima gëna neex ci Jibi lan la Jibi dafa bëgg lu reuy dafa yaatu Jibi du mebet lu ndaw lima ci gëna neex te gën ma ci neex moy Jibi dafa dafa deggu Jibi du la wax luy chaxan man Jibi du ma kon ragal gannaaw ma nga ne joxuma ñaari waye man damay bureau kese ma ko Jibi mune ma ma man dama fier ci yow man yàlla may na ma xol boobu man ma nga nee ñun ñaar dong ci biir ji bi ci biiroom ma ne ko jibi man damaa kontaan ci yow damaa fier ci yow ànd ak yow di dem rek damay neex man man dama koy sagoo parce que personnalité bi ci moom jombuwu ko fenn du ma géwélam sama nijaay la sama moroom la waaye ma gis ak moom bint ya muy ubbi di fa dugg di ma fa dugal di fa dugal keneen ak ñi nga xamante ne bii ñoo ko dar ñii fi nekk ñëpp ñoo ko mag ñi mu andat am kuku ci magut am ku ci ëpp tab xam-xam lan mo tax ñu top ji bi ñoo ëpp xam-xam ñoko mag ñoko alal lan mo tax ñu top ji bi kon lool doomu du sang war na da def ak jangat de war nañ ci def ak jangat ñi li ma wax lepp deug la ñee ko mag ñoko ëpp xaalis ñoo ëpp xam-xam ba pare ñu top ji bi njaay ne ko loo ñu wax ñu def ko loo ñu tere danañ ko bayyi fi hinasar am na ci suñu kaddu ci kàddu dëkk bi képp ku fi ñëw ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay ñaanal ñii nga xamante ne bii ñoo Jibi Njaay ànd ñi ci xam naa seeni tur te jibee tax ma xam leen ku ma ci xamut saw tur fu ma tasee yow danaa xam ne kii mbokkam Jibi Njaay te jibee tax ma xam leen du ma lim kenn waaye képp koo xamante ne bii jóge nga foo mën di jóge tànk bi nga jëlee di ñëw yal na ko yàlla def muy far ay bàkkaar waaye tànk yi ngay demee yal na ko yàlla def muy daraja yu yëkkatiku moo xam foo mën di jóge nag ki nga xam ne dafa war otoom dawal ñëw ki nga xam ne dafa war ab sareetam dawal ñëw ak ki nga xamante ne bii dafa dox ak tànkam ñëw ñoom ñëpp ñoo maase tey ci baas bi doon benn qualité boo xamante ne bii ñoom ñëpp la duy sangu di sant kon ñoo ngi leen di sant ci kàddu duy sangu di sant bu baax a baax a baax a baax suñ soxna yi nga xamante ne ñoom la ñu yàlla booleet ñu yore daayira bi soxna Fatou Diouf bu ma ko tuddee soxna Maram Ba yóbbaale na ñi ci des ñëpp saa bu ñu laajtee un million sept cent cinquante mille wala sept cent mille yi jigéen ñee koy joxe góor ñi trois cent mille la ñuy joxe wala deux cent mille loolu leer na alaaj Njaay mii bu ñu wootee ñooy wuy si bu ñu laajee xaalis ñoo koy joxe kon ñoom itam ñoo ngi leen di sant te di leen fàttali suñ kóllëre ak yéen may soññu bu baax a baax a baax xale yu góor yi ak ñu mel ni man pour nga génnee ci ñoom junni alaaj Njaay day wax a wax a wax bay bëgg a jënde ko connexion di connecté wala ñu jënde ko crédit di ko wooyee seeni soxna moo leen gënal ñu cotiser ko def ko ci daara jii wala ñu def ko ci màggal gi nañ bàyyi loolu fii lu ñu fiy taxawal duy sangu lañ koy taxawal allah njaay moomu ko oustaz njaay moomu ko ndongo Talla moomu ko duy sangoo tax ñuy def jaambur yi nga xamante ne bi ñooy jóge ci àll ba yor seen i enveloppe def ci seen i 1000 francs def ci seen i téeméer def ci seen i junni di ko andi duy sangu waruñu koo gën a bëgg xale yu góor yi ñoo ngi leen di soññ tàmbalee ko ci sama bopp nan fonkaat bis bi bu baax a baax a baax ña nga xamante ne dañuy toog naan seen màggal gi nag moom waxuma ak ñoom moom seen màggal gi te dëkk ci biir dëkk bi loolu gàcce la loolu gàcce la bis bi tey koo xamante ne bii dëkk nga ci dëkk bi amoon nga fierté pour ñu jox la ci kàddu nga wax wala ñu jox la ci cër boo xamante ne bii da nga ko taxawee ndax boo ko defut fi mu ne mën di taxawee wala loo mën di def gàcce la ci yow kon nañ fonkat suñu bis bi sant señ saalihu lañ wax fa in sakartum la asidannakum bu ngeen santé rek ma dolli len kon nañ sant ñun dañuy sant señ saalihu ñoo ngi sant ñepp di beral sant khasatan señ Mudu Lo mi nga xamantene bi doomu dekk bi la dip sang dip cheikh monona aj bopam ca kaw wacce bopam tak ak xay lepp lu ñuy def mo ci jitu neena fan def nako ci dekk bi kon sëriñ Mudu Lo ñong lay sant bu nga santal ñu waa Daaru Loog waa Ngaaboog yépp rek ñoo ngi koy teg sa loxo ma yëkkati kàddu gu ndaw jëmale ko ci ndaw ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci kaw suuf rawatina ndaw du sangu xamal leen ne ak ndaw dafa seer ak ndaw kenn du ko foye ak ndaw kenn du ko foye boo ne yàlla loo bëgg mun a ndaw yonent bi loo bëgg mun a ndaw lislaam loo bëgg mun a ndaw seytaane loo bëgg mun a ndaw jigéen loo bëgg mun a ndaw kan mooy ndaw ndaw dañ koy préparer mënuñoo tudd ndaw defaru ndaw te tuddun waajur yu ko meññ ñi ngi am ñoo xamante ne ñu ngi fonde ak njaboot war a dund ak ñoom lan la loon lan ban teg teg la yàlla teg seen kaw ci njaboot googu noonu ay àq yoo xamante ne bi yàlla teg na ko sa kaw la ca njëkk mooy yow waajur wu góor wi na tegu ci yoon ñaareel ba képp koo bëgg a dundal te bëggu koo tekki yoon na nga koy dundalal ñaq wu leew boo ko yaree mu yaru boo ko jàngalee mu jàng boo ko xamalee mu xam waaye boo ko dundalewul ñaq wu leew mënoo koo teg fenn mu tegu fa ndax yow ci sa bopp wal baladu tayibu yaxruju nabaatu bi rab bi isni see wallazi sa laa yaxruju ila nakita jiwuñ tànn ba mu set wecc bàq bi tooy xepp nga dem ruu tool ba ba mu set wecc nga ji ko yaakaar nga gàncax gu rafet waaye dem ca sën ba mu mu ma mësey ba ndànk wis wisal nga fab sa gerte xottu yaag yëpp ji doo fa am lu may gàncax ak sën kon dañuy defar toogaay ba pare doo ko mën a defar lii topp ci suñu kaw waaye nag al ummu madrasatul ula fa in aadataha atata sayba saaban tayibal araaqi yaay yaay li ci gën a jiitu mooy nga tànnal ko yaay ju baax ndax yaay mooy école bi nga xam ne mooy bi jiitu boo ko préparé aw askan nga préparé waaye boo tànnalul sa doom yaay ju baax mënoo am doom ju baax. boo demee ci suuratu yaasin yàlla nga fay wax ne inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa aathaarahum aathaarahum jooju lay wax nee na ñun yàlla moo ko sañ fa gëb ne ñun waaye ñun sañu ne yéen yàlla ndax màggaayam mu ne ñu dey danañ dekkal ñi faatu woon danañ bind leen fi bàyyi waaye danañ bind seen des wi héritier ñu koy wax ndono jigéen ñii buñ toggee aw ñam balañ koo yekk ci ndax danañ jël xeeti saabu yooyu moo xam madaar la moo xam saabu moo xam omo raxas ko ba mu set jël torso fomk ko sëpp ko fële ba mu siit ñu doog cee yàq aw ñam ndax buñ ko yàqee salte buñ ca fekk ñoo koy lekk te seen biir lay dellu kon bala ngaa bàyyil ndono nit na ko teg ci aw yoon yar ko ci diine jàngal ko diine xamal ko nan lay yore alal ba bu ëllëgee boo ko bàyyee alal mu def ko ci lu neex suñu borom sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa nekk ci njaareem dajale fere yi ne leen ndax xam ngeen lan moo di am nay am ñu ne nay de mooy ku yor alal te bañ koo lekk wala nga bañ a seriñ bay Saar mi nga xam ne dafa dégg wax ne ko ñun de bëggoon nañ koo xam Mbàkke mu ne ko am nay mooy ki jàng faatee ba mokkal ko bañ koo jàngale ndax boo woon junni ni nga jàngal leen faatee bañ mokkal ko du tee nga yóbbu sa faatee waaye kooku ngeen di wax ne dafay ba yor alal bañ koo jëfandikoo daa denc alali jàmbur te gis nga bu ko fi bàyyee lu luñ ci def ci lu baax seen bopp lañ ko defal waaye luñ ko def ci safaan dana ci jot wàllam kon bala ngay baye héritier na nga raxas ndab li ba mu set wecc nga doog ko cee teg kon dom yi nga xamanteni ne bi yàlla boole nañoo ñom ay àq la yoo bi dañ leena wara yar dañ leena wara jangal dañ leena wara tek ci siratal mustaqim waye bari na lu yëngu di niru mom ta du mom ka kan mu dawarun walay kullu mu ka kan nee miski daaroo de waaye loo seen mu rek miskit la li koy niru te du moom dafa bari li ma ci jublu mooy sunu mag ñii nga xamante ne bii ñoo fi samp lislaam ba lislaam ji toll fii ñu toll bu kenn jóge ay Égypte ki Maroc di ñu jéem a xaala li fi baaxoon Alaaji Malick bind na ko li fi baaxoon Serigne tubaab bind na ko li fi baaxoon mag ñi bind nañ ko yeneen yii di ñëw ay ay yeneen la yoo xamante ne bii bari na fi ñoo xamante ne bii seen poste doog na leen ñuy tax di association bo xamante bi dang koy fay par wer koku dinem du set da ngay wax te yalla tax lu la ca fek nga xamne fek na la ca nan fonkat sunu mag ñii ñoo ngi ñaanal mag ñepp way dawlu yi nga xamante bi ñoo dekkon ci dekk bi te teete ñu ci islam yalla yalla tero len yermane xari len aljanna mag ñi fi dess yalla na len yalla gëna degeural ba nga xamante bi doomin jur ñu ngi jot sen euh, teranga general Jibi Ndiaye ñoo ngi sant say mbokk bu baax a baax a baax a baax am na loo xamante ne bii boo ko waxee ci nit lu ko dal yaa ko gémmeñu yaa ko catu kon ñoo ngi ziar ñëpp di bal ñëpp ak di balu ñeq ak wasalaamaaleykum wa rahmatullah lu ci dëng rek man la waaye lu ci ëppoon na gënoon naay mënoon a gën a yaatu